waaw waaw jaaj ok jaajëf affiche boobu doole naa la ko mu ngi noonu ok jaajëf oui salaamaaleykum gaañ yi na ngeen def waay ça va euh, salaamaaleykum salaamaaleykum donc euh, Dabakh Malick Patriot TV yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ko sàkku ci yéen Euh, di nuyu sénégalais yépp ñi nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, di nuyu sympathisants yi ak bépp auditeur ak auditrice bi nga xam ne yaa ngi seetaan émission bi ngi leen di nuyu di leen ñaan ngeen abonné le maximum possible ci chaîne bi ngeen dooleel chaîne bi ñu continuer combat bi euh, di ñaanal sénégalais de l'extérieur di rafetlu seen taxawaay. di leen masaw ci coono bi aussi tamit euh, di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom du wax ne aussi nañ taxaw ci combat bi parce que combat bi dafa laaj ak moyen que ñu ngi nuyu Sénégal yi nekk ci réew ma di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di ko sàkku ci ñoom di leen ñaanal malade yi nekk hôpital tëdd hôpital yal na leen yàlla may wér-gu-yaram ah ñu jóg ñibbi seen kër ñi nekk ci hôpital ak ñi nekk ci kër yi ñi nga xam ne caabi la leen gannaaw te ñu tëj leen arbitrairement ci jaay doole ak ñi nga xam ne dañoo faxastalu bay am jafe-jafe ak yoon ñu tëj leen ñu ñaan yàlla yàlla na leen yàlla tijji donc euh, di jënd ñibbi seen kër nekk ci jàmm di ñaanal patriotes yëpp ak sénégalais yëpp ak képp ku taxaw di xeex pour dëgg am Sénégal ñu ngi lay ñaanal jàmm ak wér gu yaram di rafetlu taxawaay suñu kilifa diine yi su ma kilifa diine yi mooy ña nga xam ne ñooy yëkkati seen kàddu ñoo faral di yëkkati seen kanam di wax ci ñaaw ñaawteef bi nga xam ne moo am Sénégal di xeex fen ngir dëgg taxaw ñooñu laay wax waxuma sëriñ tari xay de ah non non non non man moom samay man samay kilifa diine mooy ñi ngi yëkkati seen kaddu même sëriñ daara sax taxu ay taxawaay kilifa diine moom ñoom ñooñu samay kilifa diine man waxuma ñi borom tarixa yi waxuma ak ñoom borom set set yi quoi c'est lobbying la waxuma ak ñoom donc ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñoom yal na yàlla dëgëral seen taxawaay yéen ñëpp sénégalais yi di wax patriote ne leen bu leen découragé parce que nous sommes sur la bonne voie ñi ngi ci xeex bi te destin destin wu nit ak le destin d'un peuple et le destin d'une personne et d'un pays seul Dieu Allah subhanahu wa taala rek moo ko mën a soppi benn doomu aadama ci kaw suuf mënul soppi destin wu doomu aadama lépp li nga war a am ci kaw suuf sa biir dund da nga koy téye mu neex mu métti mu naxari mu métti mu nooy mu bañ a métti da koy jot parce que li yàlla mooñaale doomu aadama bi la son destin moo taxit ku ci àndul da sonn rek te tey la ñu gis mooy <laughs> eh, eh, la gis mooy ñiy weddi yàlla bañ a gëm ndogalu borom bi ci li nga xamne mo moo di xew ci senegal te dugguleet donc euh, ñu ñëpp dañuy sonn rek parce que destinu nit yalla ba muy tabax doomu adama ken fekkew ko lam mu def ci mom ba mu koy def ken fekkew ko ruux ba mu dugal ci mom ken fekkew comme mom rek wa bu ne kun mu nekk moy kun fayakun motax doomu adama bépp doomu adama lépp loo sëq ak sa moroom doomu aadama danga koy teg ci respe teg ko ci cër ngeen joxante cër ngeen joxante respe ku ci nekk fonk sa moroom ku ci nekk taxaw ci tànku dëgg bañ a andi tànku sikk sàkk bañ a andi tànku yabelel te xam ne dëgg rek mooy mujj mu taxaw ci dëgg même li ngeen di nas boo ko tegulee ci dëgg teguleen ko ci yoon du sotti moo tax it ñu bëri ñu ngi sonn Euh, di sant président Ousmane Sonko vous félicité ñaanal yalla ci combat bu mu nekk ni yalla na ci taxaw engagement am te na ci réew mi ak bëgg réew mi sénégalais Sénégal ak bëgg sénégalais ak di midi soir donc le rek rek rek rek a citoyens sénégalais affronté affronter régime bi dictateur Macky criminel donc pour le pour Sénégal rek des ci Sénégal sénégalais des sénégalais bu nek fa nga nek sa fekk fa fekk la te ko Sénégal ñaari moy ñi nga xam ñi bëgg l'axe du bien moy ñi bëgg alal réew mi des ci biir Sénégal ñi transformer ko ci biir Sénégal mu ñëriñ Sénégal ak Sénégalais yi Sénégalais bu nekk gis ci boppam ah kay mën na nek lañu bëgg moy l'axe du bien nga xam lu muy xeex moy lepp li nga xam lu baax ci réew ak lu baax ci dundin doomu adama ak lu doomu adama soxla ci dundin mu mën koo am ci biir Sénégal ba xale yi du ñu jënd dem taxawalu ci àll bi ñuy dee ci géej gi wala ci désert bi axam kay mën na ne yor nañu alal bu ko ban def la ñu bëgg mooy l'axe du bien lu muy xeex mooy bépp citoyen sénégal bi nekk si biir réew mi moo xam am nga xëy am nga liggéey wala amoo liggéey weer bu dee bu nekk quatre cent mille francs CFA dugg sa compte axam ah, kay mën na ne am na ñooñu ñoo jàkkaarloo ak ñi nga xam ne mooy l'axe du mal moo kuréel bu bon bu soxor boo bu ne déedéet alalu réew mi doomu sénégalais duñ ko njëriñoo alal réew mi du njëriñu Sénégal ak sénégalais yi alal réew mi tubaab bi nasaraan bi moo koy jël dañ koy jox ba mu jaral la ñuy rey ay bakkan di faat ay bakkan waaye l'axe du mal mooy axe bu bon boobu ña tënk bëri na politiciens yi ñu ngi ci biir. magistrat yi ak procureur ak juge yi ñi ngi ci biir avocat yi ñi ngi ci biir militants yi ñi ngi ci biir journalistes yi bon yi ñi ngi ci biir patron de presse yi ñi ngi ci l'axe du mal chef d'entreprise yi ñi ngi ci l'axe du mal parce que ñoom du ñu bugg mukk dëgg am parce que marché yi ñu leen di jox gré ak gré ruubandaat ak yooyu dugal pro ci tank ak les dossiers de table ak yooyu ñi ngi ci biir mais kilifa diine yi ñi ngi ci biir ci l'axe du mal loolu lañ gis Sénégal mu nekk fan Quel mënu ko werante mi ngi fi parce que dëgg day métti rek nañ ko wax kilifa diine yi euh, kilifa jamono kilifa lobbying yi laa astafurlah kilifa diine yi ñi nga xam ne yëkkati seen kàddu <laughs> dramé ak di wax <laughs> mais kilifa tarixa yi laa wax yi ñi ci biir mafia bi l'axe du mal ay militants ay étudiants ay ndaw yoo xam ne yeewuñu dara ñi ci biir ay ñu ngi ci biir waaw ñu posé ko ay chroniqueur ay journaliste ay patron de presse ñu ngi ci biir loolu yëpp ay policier ak ay gendarme ay militaire ñu ngi ci biir l'axe du mal waaw ñooñu ñëpp ñëpp mu nekk benn cocktail de mol cocktail molotov boo xam ne bu bon bu salte bu yées bu xasaw bi nga xam ne yàlla bugg ko yonent bi bugg ko l'islam bugg ko moy l'axe du bien ni ñooy ñi l'axe du bien ñi sommes Sénégal jam ñi bëgg Sénégal gëm Sénégal fonk Sénégal ñi taxaw di xex fen pour dëgg taxaw ña nga dëgg joxé dañ koy wax amul fenn fu par parlo dañu jaar ci dëgg bi wax leen dëgg ak ku mu ta doon l'axe du bien moy ñi nga xam le am nañu ci Sénégalais mais am na ñi nga am philosophie liggéey ñak ñëriñu jëf jël ñak ñëriñu ndimbal ak yërmande mooy l'axe du bien di ci fekk nag ñëpp di ci fekk militaire bi di ci fekk policier bi di ci fekk gendarme bi di ci fekk waaw sëriñ bi di ci fekk talibé bi di ci fekk étudiant bi di ci fekk intellectuel bi di ci fekk di ci fekk di nga ci fekk ñooñu ñaari camp yi ñoo nekk di xeex Sénégal waaw ñii l'axe du bon bu bon bi la mooy yéeféer yeeg l'axe du bal di bëgg sax sax alal réew mi toog muy dox ñoom ñi am ay pots de vin jël alal bi jébbal ko tubaab bi ñoom ñi am liñ ci am astut bu ko séddoo ak ñi nekk ci suuf ñeneen ñi taxaw xeex du am oui para Israel e Jerusalém. Uhum. Porque ele se amou. Bati, valeu. Hum. Dá para eu não no final, Ok. Mas eu olho na

mu jaral l'axe du mal ni rey rek di assassiné depuis février mois de février mois de mars ba léegi ñu ngi rey sénégalais def crime économique crime humain pour ray sénégalais pour mën continuer di faire toogal tout bi nasaraan bi mu am l'axe du bien bañkat ni ñu taxaw moo tax patriotes yëpp di ngi leen di féliciter di rafetlu seen taxawaay ci bi le combat continue waxoon naa l'en ko fi ci sama yenen vidéo ma dedans ni def lu pour nit ñi ragal ñi bàyyi leen ñoom ñi def lu neex lu leen neex mais kenn du fi ragal te dañu continuer di porter combat bi ak résistance félicitations sénégalais yi réew bu nekké ci ci ci biir guuta wa réew ma ñoo koy jënnee merci ci sen taxaway di leen wax né li ngeen gis nonu yëpp li ko lal moy ragal rek

Macron dugg na ci caayam tay yi ci affaire Ousmane ak affaire sénégalais yi ni muy tëj gaay dictature bu muy imposer parce que Macron tamit Diobaye dugg na ci ay 18 am caayam mu ngi dem mais loolu ñom duñ ko wax be mom ak Macron raccroché xëj seen digënté mom moom Macky Sall il est en mauvaise posture waaw parce que dara pour américain ki li nek li nga xamne mom la Macky Sall di doxal ci bir Sénégal té té américain dofuñu parce que xamnañu position Sénégal géographiquement France bu jappé ni mom rek mo am intérêt fofu non non non parce que américain dofuñu amnañu lecture de la situation géopolitique américain amnañu lecture bo gissé taxway bu ñu taxaw Niger gawontu nommé fofu ben ben ambassade te fekk une base rek am base dañ ko bu dañuy fay ñi ci bi nga ngi France mu joggé fofu nommé ambassadeur Amérique États-Unis ko français parce que ñom xamna américain ñi ngi Poutine dugg Poutine parce que Wagner dugg na ci xex bi Wagner dugg donc américain ñom xam nañu Niger ci loxo Poutine lay mujjé Poutine dugg si na donc te Poutine dugg si na américain am nañu même intention pour Sénégal parce que xam nañu bët Sénégal Poutine dina fa dugg waaw dina dugg kay parce que mu ngi ci buntu Sénégal Mali. donc motax ñom ñoom dànkaafu nañu Macron rapidement jëm ko xamal ni Pastef bu mu tas ni injustice la ko teg tegu ko fen ci dictature la ak na bàyyi sénégalais yu muy tej di rey te bobo ba léegi ñu ngi wax enquête te gisuñu enquête te américain def nañu enquête ci assassinat bi mois de mars génne rapport le département d'état américain def enquête union européenne def enquête Macron yor na mo mak Macron xamna ci li donc anglais bi ñuy anglais Macron ni ci récemment la ah, yàggul de fani rek ci dossier bi nga gis ni du Ousmane arrestation parce que américain dañ ko né élection mënul am Sénégal té Ousmane du ci bok lu leer la ko américain yi wax élection mënul am Sénégal té Ousmane du ci bok le leader de l'opposition du ci bokk mënta né té nak bu ko dara dal parce que ñi ngi leen di xol ma Macky Sall xam na bu baax li yow yéen waa APR yéen xamul tok di yuuxu di ratatati mais Macky Sall bi nga xam moy ndey mbill bi mom xam na fu mu tok bu toogee du poup

Euh, dina la jël alaaji rafet may ma rek mhm. waaw euh, ngeen déglu ñu déglu tuuti yi voilà euh, d'accord xaar leen donc ñu dugal ko. Hmm? Comme ça. Hein Hein? Voilà. Hein? Beaucoup de fait. Donc, euh, dañuy commencer par. Euh, Monsieur Babacar Fall nga xam ne moom moo am initiative bi euh, quelques mots en Wolof, juste à l'adresse du sénégalais par rapport à la mission que vous venez d'accomplir. Oui, donc, je euh, vais commencer par euh, féliciter le travail. Il est, il avocat pour défendre la cause du Sénégal aux oreilles des autorités de cette institution. Légui, ñun li ñu def ñun Sénégal il lañ que nous ngi dëkk ci diaspora bi mais ngi pour que suñu un pays libre mm-hmm. may rappeler que le premier président je le dis en français pour que ce soit bien compris le premier président dans le monde qui a quitté le pouvoir par lui-même sans contrainte était un Sénégalais, Léopold Senghor. Sans contrainte, il a quitté les lieux par lui-même, par son intelligence, après avoir amener des générations vers l'école. Mm-hmm. C'est là son ambition. Et parce qu'il a, on ne peut pas le taxer, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas taxer d'avoir pris quoi que ce soit, pas un centime des caisses de l'État. Mm-hmm. Il n'a aucun bien mobilier ou immobilier dans la diaspora, mobilier ou immobilier dans la diaspora. Il a été serein. Donc, on demande, nous sommes des gens qui qu'il se réfère à son attitude de sagesse. Voilà. On ne peut pas continuer à fermer euh, l'expression de tout un peuple par la répression. Non, il faut discuter, être intelligent, savoir quitter les lieux avant, que, avant de se retrouver en situation de fuite. Parce que souvent, les dictateurs finissent par fuir. Par fuir. Et ceux qui vous disent qu'ils vous soutiennent à ce moment-là, ils ne vous reconnaîtront plus. Mhm. Mhm. Donc, il faut partir mhm. sereinement, avec grandeur. Merci beaucoup. Eu l'opportunité de, rencontrer des responsables du commissariat aux droits de l'homme pour euh, leur, faire connaître euh, les derniers événements qui euh, <laughs> en particulier, mais plus largement l'ensemble des militants politiques Mhm. qui euh, sont euh, détenus ou réprimés arbitrairement dans des conditions particulièrement graves, que ce soit des, aigus, euh, des avocats, des journalistes, de simples citoyens qui, à Rebus et ailleurs, sont dans des circonstances qui sont inacceptables. Donc, on a parlé évidemment de la situation et, mon confrère Darifou, un confrère Darifou a commencé par présenter la situation d'Ousmane Sonko, l'urgence absolue à laquelle il est confronté et la nécessité d'intervenir auprès des autorités pour mettre fin à cette euh, persécution inacceptable. Et on a euh, détaillé l'ensemble des autres éléments. Il faut rappeler que le commissaire aux droits de l'homme s'était exprimé sur la situation des Sénégalaises déjà, ce qui est un fait particulièrement rare et, euh, ce qui avait provoqué l'embarras des autorités sénégalaises. Et nous avons demandé de, de s'intéresser plus en profondeur à tout l'aspect caché des violences politiques qui sont actuellement en cours au Sénégal. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a toujours été un exemple en termes de droits de l'homme et d'état de droit, et a montré euh, euh, une forme de, puissance qui, euh, qui fait qu'il est difficile d'ajuster les perceptions et, et, de se rendre compte qu'en fait cet état qui a été magnifique, qui a été à ce point admiré et loué, se soit en si peu de temps transformé en une prison à ciel pour tous ceux qui s'engageaient sur la voie d'un changement engagé, sur la voie d'un changement démocratique, comme le fait le PASTEF. Donc euh, on est à six mois d'une élection qui est fondamentale pour euh, non seulement Sénégal, et c'est aussi un des points qu'on a abordé, pour la sous-région euh, dans son ensemble, pour la stabilité du continent africain et, ses rapports avec, l'Union européenne. Il y a des enjeux très importants à tout niveau, y compris migratoires, y compris en termes de terrorisme qui sont migratoires, y compris en termes de terrorisme qui sont charriés et qui exigent en fait une forme de stabilité qui ne sera obtenue que si on permet à l'ensemble les candidats légitimes de se présenter, et parmi eux, évidemment, Ousmane Sonko. Et pour qu'il puisse se présenter, il faut qu'il soit libre et il faut qu'il soit vivant. Mhm. Donc euh, la communauté internationale a une responsabilité à, à dégâts. Vous voulez rajouter quelque chose, même L'essentiel a été dit par mon confrère, mais c'est juste un rappel pour dire que il faut que les autorités sénégalaises sachent que le monde entier à fixer son regard sur le Sénégal mhm. et que rien ne sera impuni. Rien ne sera impuni. En qualité d'avocat, nous ferons tout ce qu'il faut. Nous utiliserons tous les instruments juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition pour mettre fin à, ces pratiques dignes d'une république euh, bananière. Mhm. Et le Sénégal ne mérite pas euh, ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'ai toujours l'habitude, j'ai pris l'habitude de souligner qu'il y a un héritage démocratique euh, légué par les pères fondateurs de ce grand pays. Mm-hmm. Et ceux qui sont là ne sont pas dignes de cet héritage. Mm-hmm. Je le dis avec fermeté, puisqu'ils sont en train de détruire ce qui a été laissé au lieu de reprendre le flambeau et se mettre à la hauteur de ceux qui ont bâti ce grand pays, sont en train de le détruire. Et nous avons pour mission, en qualité d'avocat, d'utiliser tous les moyens juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition. Les instruments existent. Et c'est pour cette raison que le travail au niveau international, doit être euh, très intense. Ici, on a commencé ici aujourd'hui, mais nous irons dans d'autres lieux très prochainement, très très très prochainement. Euh, comme ça, ils seront, l'impunité, zéro, c'est fini. c'est fini. donc, nous savons que les organes, je l'ai dit avec euh, fermeté, les organes judiciaires, les organes exécutifs et militaires de l'État de Sénégal sont devenus des instruments de répression. Et ça, c'est inacceptable. Et l'État de Sénégal assumera ses responsabilités. Et bon, nous sommes là pour activer justement tous les mécanismes juridiques et diplomatiques, que cela soit une réalité et très prochainement. Inch'Allah donc euh, mon suis ay avocat euh, donc euh, Ousmane mon banxaasu ak nga Nations Unies dem yobou fa ñu fay ngeen ñoo wax donc mu nek ñi nga xamne donc te que nga xamne mom mo nek Sénégal

ñoom ñoo njëkk trahir askanu Sénégal trahir diine l'islam trahir diin seen maam yi li ñu taxawaay gi ñu amoon xeex bañ ba ñu déporté leen ñu bañ ba ñu delloosi leen ñoom ñoo ko trahir ñoom lu ne fang kenn du ko wéjal di ko werante seen bu ñu neexee ñi mer ku ci mer na nga dem tabax ci jaw ji wala nga tabax ci kaw ndox ñi ci kaw géej ji donc li xew Sénégal ñëpp gis nañ ko te la ca kanam raw li

mais comploté contre sénégalais ak sénégalais ak sénégalais nag ci portable Marème Faye Sall boobu réer def toj-toj bi la nekk ci biir yëpp ñoom ñëpp a ngi ci biir sëriñ si tout le monde kile <laughs> jëlee ko Touba ci Kaolack Yoff ñëpp a ngi ci portable bi ñoom ñëpp ñoom ñëpp contre Ousmane ñoom ñëpp ko complot ci biir portable moo tax ñi ngi xaru pour portable bi bu mu jënd bu mu wax portable bi dana wax wallahi portable bi dana wax waaw ñoom ñëpp tout monde képp ku ci ŋàng sa baat li nga wax teg ko ci deru Ousmane complot ak yëpp mu ngi ci portable bi ñoom bokk nañ ci njiitu tarixa yi toog ne faax ni dëmm ci kaw sénégalais yi di muucu deretu sénégalais yi toog muy dox su Macky Sall ñu complot sénégalais nous ngunu ngunu ngunu ngunu bu gor ñi ñëwé tok ak ñom ñu né fang ci kaw gëmuñu dara amuñu déontologie nothing no sense ko lañu gëm alal oui je te rappelle je suis en direct

ñoom ñoo fi mujj seen taxawaay maam yi ñooñu seen taxawaay seen baay yi taxawaay gi ñu amoon taxawaay googu lañu am ba bi génn àdduna mais lu tax ñoom seeti am ñu taxawaay boobu et pourquoi ngeen bëgg ñi ñi gis dëgg ñu bàyyi dëgg dem ci fen pour lan lu tax pour pourquoi duñ ko def toog muy dox wutuñu yàlla wutuñu yonent bi amuñu benn taxawaay ci diine l'islam seen taxawaay tey ñoom bu Cheikh Ahmad Bamba ñëwoon wala Maodo Malick ñëw wala Limaamu Laay ñëw wala Baye Niass ñëw euh, seen taxawaay ak taxawaay Ousmane Sonko mu sell mi ak sénégalais yi bañ moo leen di gënal fuuf taxawaay ñoom ñoom ñi seen taxawaay ñoom ñi anan keneen ki jabar ji dawul dem ànd ak Marème fay Sall jabar ji xam naka la tudd xaw ma jabaram na sëñ mu taxaa jàll ana jabar ji bagee ko foofu mu daw ànd ak madame Faysal ana mu mu ngi daax ba daaxal ma daax dugg naa ndaat na ko fa ñukk ni yekk mu naxari tey anamu kooku ñooñu toj toj yi nekk ci portable bi yëpp jabar jaa ngi ci biir ana Bass Abdou Khadre moo dàq tux asis fii tatt lay def ni xaj maa ngi koy wax ba léegi di insister xam na ku ko jaay tat lay def bas abdou khad day mandi tat lay def day tukh pour mo xalen ko bu leer waaw ñom la ay bandi lañu ñoom ñëpp gëmuñu dara fi lañ ko jox 50 hectares mu jaay ko tëdd ci xaalis bi ñu jox ko projet aéroport ndar kan lañ ko jox mom bas abdou khad fan la jëlee milliards dafa yore entreprise sàcckat la fenkat soskat tey li dal Touba borom ci bopp ñoom ñëpp moo leen ko dal da ngeen di am courage taxaw wax dëgg te yàlla tax tax am leen courage taxaw wax dëgg te yàlla tax te xam ne seen bàmmeel mu ngi leen di xaar lu yàqu Touba moo ko yàq ñoom te ñoom ñëpp ñoo ko complot ci lan nga dëgg doom yi doom yi. Euh, euh, taxaw bi jënnoon ne way papa bi yëgul dara mais ay fen la bàyyam ci complot bi la bokk moo tax ba Macky Sall ci mois de mars dafa daw si yuuxu parce que ci ci mafia bi la bokk ci l'axe du mal fa la bokk bañ ko fëggee rek mu daw si intervenir da ngeen dëgg mu ŋaang fii ñi rey rek ci ñëpp li xaw Sénégal ba tey da ngeen dëgg mu taxaw ubbi jëmiñam wax da ngeen dëgg mu yebal déedéet ñoom ñëpp ñu ngi ne muut parce que seen seen mafia la gan bu toog fii trop c'est trop amul leen lu ñu fi nëbb gan fii ku fi dee ak sa bàmmeel man la may wax man ak sama bàmmeel la ñoom duñ ko weddi waaw tey preuve moom ñaata waa Touba la ñu téye tëj da ngeen ko dëgg mu wax waxut complice la li leen intéressé mooy milliards yi màggal bi waaw ñoom ñu ngi ci programme màggal mais waa Touba ñu ngi dey ci kaso bi ci ci jaay doole sëñ Baara mi ngi foofu ñu tëj jabaram gisu ko ay doomam gisuñu ko ay dëkkandooram suñu ko ay nawleem suñu ko kenn gisu ko lu tax ñu tëj seen ba xaaral dañ ko rey buñ ko reyee nañ ko delloo jox ko si ay mbokkam ñu dem suul ko mu noppalu ok lii moo fi am ñu ne noo kenn du wax parce que boo wax ñu ne noo sëriñ si sëriñ amul senegal xam nga kan mooy sëriñ xam nga kan mooy sëriñ kay taxaw di wax dëgg te yàlla tax ñi ngeen di joxoñ naan ay ibaadu rahmaan lañu ay ñe ñooñu ñoo am taxawaay boobu ak ñi yëkkati seen kaddu di wax li yàlla wax ci alquran karim li yàlla tere ak li yàlla li yàlla digle li xadis tere ak li yàlla xadis digle nag ban taxawaay la ñu war am ci diine ji ban taxawaay ngeen war am ci société bi ñooñu ñooy sëriñ mais ñi fi nekk ay bandi lañu mafia ñoo comploté Ousmane moo tax ñi ngi xaru lu ne ñu koy def pour portable bi bu mu wax barke salatul fat si ma téy portable boobu dina ko jënde parce que la nekk ci portable bi dafa garaaw ana Maty trois pommes leen non euh, vidéo yi la la Adji ñu nag ñoo ko xam bés bu jëndee anam doomu xaraam yooyu lan ngeen jëndee tey le portable la dafa war a jënd wax ah, waaw waaw da ngeen fàtte fii fàtte ngeen fii tatouage yi madame Faysali fàtte ngeen tatouage bi xanaa Didier Badji ni ñu ko reyee assassiné ko gendarmerie waxutu Fulbert Sambou armée waxul ken waxul lépp crime yi yëpp ngi ci biir portable bi ma leen wax ni crime yi ñoo xam lu tax ñu jafur dem di persécuter kër Ousmane ku nekk ñi jëndee fetal teg ko waa kër Ousmane portable portable ba dem na ñoom ñëpp ñii ñii woote ñii soi-disant les xalif généraux ñoom ñëpp a ngi ci biir ñoo ko complot xam nga ni yàlla yàlla yàlla ay mbiram day leer nañ fa portable bu dëkk ci palais ba Marième Faye Sall yor ko muy jaagar jaagar ci entre Marème Faye Sall Moussa Fall di def ay crime di rey di assassin di filmer ñëw di ko woon Marème Faye Sall di ko woon Macky Sall portable bi di dox di dox di dox di dox ba ñoo daanu ci ci loxo euh, euh, euh, capaculi bi critim ba mu ñoo daanu ci loxo capaculi bi ngeen xam ne yàlla rek mooy buur portable ba jógee palais portable boobu la ñuy filmer seen ñaawteef yépp ci portable boobu la ñu ko filmer même ñoom group Marème Faye Sall bi seen taatu ne ni ñuy def noonu la ak seen lëf yi ñu tatoué lépp ci portable bi la yéen seen portable bi dafa garaaw ah, ah oui oui oui seen clic boobu clic boobu ay boy ndaw ñoo leen di doxaan bandi lañu lépp a ci portable crime nu ñu reyee Didier Didier Badji nu ñu ko assassiné dóor ko acide muy seey tànk yi muy yuuxu yuuxu ba ci ndigg li muy yuuxu ba ci dënn bi ba ñëw ba ci bopp be mu seey tubaab Diallo ci kër ma Madiambal Diagne mi ngi ci portable bi Fulbert Sambou ñu ko reyee daggati tànk yi mu yi foofu François Makabu ni ñu ko torturé mi ngi foofu c'est-à-dire ñoom dañuy def seen toj ba pare ñoo won ko Macky Sall présenté ko preuve comme def nañu quoi Moussa Fall nekk ci ginnaaw loolu yëpp <laughs> yàlla ngeen dajale lépp portable bi ne dagat ci loxo capaculi moo taxit ba ba portable dañu dof ñoom dañu complètement déjà jeune bip, gars daw dugg persécuté loolu portable ba na ne Ousmane ne Pape Alé pour ñoom jàpp nañu pap Alé am na données yi <laughs> daw téye Pape Alé anam ñu Alé lu mu yor boobu bés bu ko bu ko porte bi la portable bi du tukki moo laa Morgan tuuti la ci yor mooy lan complot assassinat sëñ Saalum mii ki jox Ousmane Kharbi, complot assassinat par empoisonnement Antoine Diome moo doon dox mission boobu infiltré foofu yóbbu poison pour posséder. C'est sëñ Saalum moom Antoine Diom, mu ngi ci portable loolu la mu ma mais tocco ji bomb Moi t'as tax ñi ngi daw di négocier ka daw di négocier la ko Ousmane tontu dëgg na ko duñu ko wax mu ñu mu dem

a bi yow bu fi soit dafa am ligne rouge que ça soit la dernière fois nga ñëwaat fii a cinq 5, ma signé ben ben document Duma def ben compromis ak régime Macky dara amul liberté professeur. amul no nothing li la len tegal li la len tegal di motax ñun dañu wara continuer xex bi léegi ci kanam situation bi Macky Sall nekk nii inconfortable parce que gannaaw yàlla ko yonent bi Ousmane Sonko moo tax ak patriotes yi Macky Sall royaume amul Sénégal de bour Macky Sall Sénégal royaume na def mais babu bu gëstoo ñu téegal ndem ci mois de février mars mars bi mu toftal ko juin ñu téegalaat ndem mu dem taxaw ne xam ni su yu dekk 4e 3e mandat fi dekk bi tàkk mu waaf waaf teg beneen stratégie mooy naa fexe dëkk bi nekk kawo ñu un état d'urgence couvre-feu élection du am ma toog boobu tamit di déjoué ko moom ngeen gis attentat yi ñuy def seen loi bu ñu wotee assemblée nationale te loi bi kan moo ko France moo loi contre le terrorisme ñoom Sarkozy Tony Blair ñoom ñoo doon Sarkozy

Tata pour attentat Antoine Diome ba léegi ñu ngi ci wut boobu tamit bañ koy def seen fen yi patriote yi ak sénégalais yi nekk seen kaw terrasse ak seen seen salon ak seen euh, balcon yi filmé en direct ñu génnee tegal leen ko mu yàqu ba léegi ma ngay wër dernière stratégie bu ko desee mooy naa def ci màggal Touba naa fo dóor bomb mu éclaté ñu ne woy woy waa kër sëñ Baara la ak waa kër Ousmane terrorisme ay ci loolu lañ taxaw moo tax sëñ Mountakha mbake yoo lay waxal mu Mountakha mbake ak Bass Abdou Khadre ak ñi fa nekk ak ñooñu yéen a am responsabilité boo leen defee bomb foofu yéen ay terroriste lu fa takk yene a ko rey yow Mountakha ci nga bokk Bass Abdou Khadre ci la bokk Antoine Diome ci la bokk yéen seen dil la na toi Touba xam loolu bu leen ëpp bu leen ñàkk ful la ñàkk fayda bu leen nelaw ba ñuy saggan ba ñuy jël seen bakkan ngeen toog di naan waaw sëñ bi dil ñoom ñëpp ay bandi lañ ma wax leen ko tey ñooñu amuñu ma ci yenn faalewuñu leen ñoom seen xaalis lañu soxla diil ci kaw état bi diil ci kaw sénégalais tey boobu boobu la ñu bëgg a doon mu kalaate bum ñu ne voilà li ñu leen doon wax terroriste ngi nii élection du am kirtim karang-karang seen loi bi wote nañ ko assemblée sénégalais xool leen ni ñu def waa Touba jël Baye Fall doomu xaraam yi nga xam ne tekkuñu sax daan jël leen ñu et ñuy dóor Sénégal waa Touba gor jaas yi ay jigéen pour xeesal te ñoom seen mbay mbaali jabaram mu tàgga mu ngi xeesal ba taati xooxo cuy lan lañ ko mu ngi takk mees ànd ak Marème Faye Sall di bur di bumi seen jabar ñoom ñëpp seen si seen jabar yëpp ñu ngi xeesal ba ne faax toog ñu leen di toggal ay ganaar dañuy roof ganaar bi ba roof taatu mbindaan bi tegal leen ko chambre climatisée auto bu climatisé salon bu climatisé lu neex rek toog muy dox Bamba xamuloon climatisation Maodo xamuloon climatiseur Limaamu xamuloon climatiseur Baay Ñas xamuloon climatiseur ñooñu du ñu tëdd ci kaw lal dañuy defar lal bi ba mu rafet ñu jël kaamil yàlla yi teg ko ci kaw ñoom ñu tëdd ci suuf laaxu Dakar lañ daan lekk di tarbiya di defar jaam yi teg leen ci siraatikal mustaqim parce que kenn amu ci màkkaama yóbbu nit ajana kenn rek la ko yàlla may mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek moom moom moom rek moom rek la ko yàlla may pour ramu jaamu àdduna ñoom ñëpp cent vingt quatre mille prophètes yonent la yàlla sax cent vingt quatre mu dëñee ci trois cent treize yónni mais ci cent vingt quatre yi yëpp kenn la ko la ci jox makaama boobu mooy yónni ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cent vingt quatre mille prophètes cent vingt trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf prophètes yi kenn amu ci makaama kenn amu ci puissance kenn amu ci sañ kenn amu ci ndigal kenn amu ci man-man pour raamu benn jaam yonent bi rek la ko jox sallallahu alayhi wa bu tedd na ko say xeet wax ma lan nga soxla ci say xeet mais kooku pour mu mun koo am aussi tamit yonent yàlla pour mu mun koo am pour mu mun a am loolu day fekk jaam bi nga liggéey lu mat soixante soixante quinze pour cent nga def ko ci lu baax li ci des mu mun a taxaw ñaan intervention mais nga nekk ci dëkk bi bu boo l'islam bu boo alquran di sàcc di comploter contre say sénégalais di rey sénégalais ñuy toog di xool fu xaalis neex nga nii fu jigéen bu rafet jongoma fu mu daagu rek nga ne man la ci man la baaxee limousine bu mool ñu àndil la ganaar gu ñu roof ba roof tàcc mi daam ñu tegal la ko nga nag dong ci kaw yore sa kaala yore sa sa kurus taxaw naan la <laughs> macha allah mm, maam est-ce que mais xoolal da ngeen di nax seen bopp comme jaam yi ku fi liggéeyul yoomal xiyaam da ngeen nekk tallal ba ngeen nam sëriñ munu ci dara kenn munu ci même boo liggéeyulee yonent yàlla Muhammad sallallahu du mun a def intervention ku xëyul doo fayee ku weer bu dee yàlla ba muy defar ajjanaama ak safaraam Ken jox ko béton ken jox ko plan ken jox ko gaz ken jox ko dara tous motax tax ba muy tabax doomu adama ken fekkewul ba muy defar ruh ken fekkewul ba muy jox destin doomu adama ken fekkewul gis ngeen président Ousmane Sonko bu yalla waxe day jël réew mi barke Nabil mustafa ken amu ci pexé makkaama pour téye dana ko jël mais bu ne du ko jël ñun ñi ànd ak moom ci ken kenn mënu ci dara motax on peut pas changer le destin d'un homme on ne peut pas changer le destin d'un peuple. On ne peut pas changer le destin d'un pays. Yalla Mohamed rek moko am te pour mu mais il nga liggéey yo tamit attention yonent Yalla Mohamed damm nañu bañam na pour l'islam faay le mu sonn yo nga nga bëgg a jël taxaw naan ma wéy sama baay sa baay fan la fan la toj tojul fenn fenn seen maam yi tojuñu fenn dama bëgg ngeen non nen ngeen nekk nit ngeen bàyyi sénégalais yi ngeen muboo di toroxase fu mu ne nii ñi ngi rey sénégalais di leen tëj yéen a ngi calculer euh, quatre milliards yi voilà magal tubaab bi def nañ trois milliards léegi bii wana ma war la budget bi mun nañ ko teg ci quatre milliards yéen a ngi commencé yu tàkk seen rajo yi kan mooy dof moo fay dem dégg ngeen bas Abdou Khadre Mbow ku dee ci yoonu magal àjjana nga jëm <laughs> ok comprendre parce que ñoom respecté wuñu leen wallahi teguñu leen ay nit ñoom seen intérêt bopp rek réew mi ku fi nar a falu boo àndul ak Cheikh Ahmadou Bamba dafa non cest à na ma yàlla baal quoi xam ngeen yéen bu ñu leen waxee dëgg ngeen mer Bamba dafa dumóoyu àdduna dumóoyu politique ñi ngeen war a waxal mooy salopard bi toog di tux achiche achiche di doxaan ci gali moom Bass Abdou Khadre bandi kooku ngeen war a waxal waay allo salaamaaleykum laa xam sa baax nuyu naa leen yéen yëpp di nuyu sama doon di mhm. matti amaax di ko jox sa yéeg waayam bu baax a baax ñëpp ñëpp nuyu naa leen Euh, man dama bëgg euh, sénégalais ñu commencé réfléchir un peu yow sa ndey ak sa baay ñu jur la sa yaay ëmb la neuf mois yeneen saay mu ëpp loolu sonn ci yow mu wasin la du ordonnance du dara lépp sa waajur yi di ko def ci yow mi lay solal di la jox dàll di la jox lépp waxtu jàng jot ñu lay inculqué valeur yi baax nga dem ba màgg nga ne ñooñu valeur yi ñu la jox noonu yëpp ñooñu doyuñu la nga ne yow da ngay dem uti sëriñ day dem nga leen ne jox naa leen sama àddina sama àllaaxira man xam nga lu ma jaaxal loolu mooy saaga nañu seen waajur yi te xamuñu ko ça veut dire vous qui nous avez porté dans le ventre nous avons changé nous couche nos solal duñu toppatoo ñu feebaree ngeen Nous Nous ngeen jàngal nous nous école nous Nous dara. dugal Nous qui euh, euh, pour catholique nous ni leen église nous jàng nous nous nous aimer ñooñu mën na leen yóbbu àjjana mais ki nga xamante ne juddu na ajak-jak mu ne moom maamam moo tax moom mu nekk fi kon da nga war a topp maamam boo ko toppee nga koy jox sa alal te dem àjjana te yow boo nekkee ci problème kooku faalewu la boo dee sax duñ la suulandoor ak duñ la suul fu ñu koy suulee moom Mm-hmm. Bass Abdou Khadre moom kooku moom dafa nekk doomaraam de première catégorie parce que gis nga nit bul topp nit ba mu lay lor ngay topp ci moom mu lay rey rey sa askan nga topp ci moom loolu yëfu mbaam la ngeen baal ma ci kàddu bi parce que gis na dëgg yàllaa ko moom sëriñ moomu ko maamu kenn moomu ko yonent bi sax am eh, kii eh, yonent nuuxu doomam yi yàlla xalaku leen jabaram yàlla xalaku leen te mhm. pourtant yonent la mhm. moom du sëriñ de moom yonent la maqaamam moo ëpp sëriñ mhm. kon gis na ni ñi dañu war a yàlla dafa jàngale dafa jàngale muy ci alquran muy ci bible muy ñun suñu maam yi lu ñu doon jàngal valeur dafa baax ci nit Sénégal dafa perdre valeur dañoo perdre suñu dignité ñun suñu maam yi lu ñu doon xeex yëpp ñun dañ koo ñëw nangu ñu téye ko njàtt ko nag ñu ne ñun ñàkk jom daal ñun foog ñu jël ñàkk jom ñu moom ko moomal ko suñu bopp poñe ko ba mu koy sañsey sénégalais yeewu leen boo leen jógee ngeen naan sénégalais ñoo gën a muur seeneen xeet yi

parce que dañuy bëgg puukare di wone wu wàcce sa bopp ba yàlla yëkkati la maa ngeen ay ma dem topp borom kër gi merci alors loolu yëpp ngeen gis ko moo taxit dëgg moo tumuraaki sénégal dëgg dëgg dafa rafle sénégal tey boo xoolee ñoom boo xoolee ñoom seen posture seen taxawaay ak li nekk di xew senegal boo defee analise globale mooy ñoom ñi woote seen bopp ay kilifa dine euh, seen lobbying la boo defee analyse nga gis da ngay gis ni Touba Rafia Mbacke Rafia euh, imam boobu xam nga imam la Rafia xafiya wër nga këpp moom rek moo taxaw ci dëgg Rafia Rafia Mbacke moom la kondom ci biir moom rek. man su may déglu kooku lay déglu Rafia Mbacke waaw kooku rek sëñ xam nga imaam la xam nga nag imaam Rafia Mbacke xam nga sëñ ba kooku rek nga bëgg boo bëggee dëgg-dëgg te yàlla tax wallahi wal kitaab yi barke alquran alkim ak suma tray bambel ku bëgg a dëgg-dëgg rek déglul Rafia Mbacke moom mais boo ñëwee ki mais dem bul solo sa bopp demal kër da baax Malick njool Fuuta Habib ak seen beneen rakk ak frère bi ñooñu ngay dëgg dëgg ci wër péng fa seen ma seen baay teg tànkam fa la teg seen tànk bu ñu rëccee c'est fini waaw kenn mënul dindi li ma wax c'est des faits mais ñette des yëpp ñu ngi dund ci deretu askan bi ànd ak Macky Sall moom ñi rey sénégalais kenn ŋaamul kenn sexul kenn yebul ñu gën a pat te Macky Sall ba ñu téegale ndéem ci mois de mars moom moo yónnee sëñ Mountakha daw si yónnee parce que ci lobbying bi la bokk groupe bi la bokk ñu ne ko doo yow groupe bi éclaté na fu mu ne nii boo gaaw la rek la mbay ñaaw mu daw si sauver son élément mais tey anam da ngeen ko dëgg mu ŋaang dëggu leen ko mu wax mu ngi ne pat curu ko doomam jënd ne bàyyam yëgul day fen day duul xanaa kon <laughs> kon baatin amul. Batin, waaw Batin, way pa euh, déggul xamul ni Ousmane dañ ko côté. mais c'est pas vrai day fait batin. xanaa amul Batin, Batin. waaw moy amul quoi waaw le moy kon seigne bi amul waaw parce que bu amul batin. <laughs> dana xam lepp lu xew quoi xam ngeen nit ñi da ngeen di wax ba faf yeey seen bopp waaw wax faf ngeen jàpp ni sénégalais yi ñi ay dof lañu waaw ba pare toog fii bëgg ñu àndil ay ay détails ci lan pour lan ah. voyons même d'abord. bëgg ñu àndil ay détails fii tegal ñu ay détails ngeen déglu euh, waaw. allo salaamaaleykum oui allo. oui da baax naa rek. maa ngi ziar. noo def. maa ngi delloo ziar. waaw da baax wax nga wax wax ji yëpp. am nga fa nga waxee wax mm-hmm. mooy li nga xamante actuellement nag xool am Touba. kap boo ko takkee sax. bàyyi faa ñëw dindi ko yéen a xotti ka. waaw lan kap. te wax nga tey nag ba mu solo. xoolal mu taxaa mi ngi wëcceeku weex taal. nee na ni tere xeesal. te moom mu nga wëcceeku weex di xeesal dakk greffage. la moo tax moom duñ ko la moo tax ñoom demuñu si a ñu wax xeesalam bi. Mm-hmm. ah waaw léegi nag avec ça ñoom ne yéen ma xam man laa mën a comprendre ñu màggal gi ñu jël bëgg bëgg di programme la Abdoulaye Wade mi ko def fedde moonu tooñ Abdoulaye Wade mi ñu def ko fedde moonu tooñ parce lii ñu wax da baax du farata lii nekku si alxuraan. waaw ci dañuy ñaanal maam borom Touba. te ñoom ñoom ñu ngi du nii da baax du nii. dama dama lay laaj gis nga Touba la fay mbooloo bu màgg bi ñëw fan nga mos a gis ak Muntaxa jiite mbooloo moom te pourtant yomal xiyaama Muntaxa dina ko layal sunu borom. dina ko layal sunu borom parce que moom moo woote moom moo woote ñëw wuy si leen ma. waa léegi ay doom léegi nag Adama ñëw léegi ah? bomb bi bu xalaatee foofu bomb bi ñoom ñoo ko taala ah? mhm. bomb bu ñuy ruubanaat nii pour jéem a terrorisme ñoom la moom ñu ci biir. Ah. man ñu xoolal ñu gis ne seen programme ñun on s'en fout avancé boobu gis nga na am bomba boobaa bomba bi amee na nan ka de ka de ko mënta xaar googu ba xam ba xam ba xam daj ak am am déet ñun man xam nga lan mënu comprendre lan moo dañu jël Touba rek jël mënta xaar defal mënta moom Sénégal moo téye Sénégal loolu la ñuy ñun Touba Touba Touba ñun boobu am na de quoi teewul foog am na de ñun sora quoi voilà loolu la quoi yooyu yëpp Sénégal gi rek jël rek tuuba tuuba Macky Sall la Macky ñoom Antoine Diop parce que ñoom foofu seen yëfi doomaraam yi foofu lañ ko bëgg a def ba pare nag ànd ci ak ñoom ñi mat ka nan ka fa def da baax nan xool laay gis nga seen simplement bu ñu pala buñ ko rata de bu ma dogal na nga nga def sen na nga def sen boobu bu baax a ba pare ngeen di ko woote ko passé wala ngeen di ko passé bu daf leen ko de bu leen bu leen reculer bu leen reculer ben yoon ñi dafa lu ko da dafa amé de ko tuuba feeñ na danañ ko doon waawon wala euh, euh, kaolak yooyu cité religieux ñu ne fofu lañ jëm quoi pour jëma ji wut ñi ngi fen di bëgg tax jax cest à ay do baram lañu quoi fen rek sos lañ fi nekk ay beneen um, débat gi ñu ne nii lu lu defagul lu ne lu nu defagul lu ne lii mos gën a tuuti nguuru Macky Sall lu nu defagul lii mos gën a tuuti ñii def def nañ ko defa defe ne ba fu ñu toll nii seen plan yëpp fi nekk jeex na léegi nag ñoom bomb bi ñu xaar si si màggal gi nan ko fi def màggal goo xam màggalu sabar la màggal goo xamante ni kenn du fa tudde yàlla kenn du fa alxuraan ñe ñee ngay sab ñee ngay wër ay fi dem fi fi doomu a àddina ay jaamu yàlla ñu fay sukk di fa ñaar loolu dama wax am loolu lañ tudde màggal te xam nga koo ni màgg waaye du sëñ Touba sëñ Touba wootewul lii ba Touba Touba wootewul lii wootewul lii benn affaire puukar balaa maa dee ma ko doomu Muntaxa yéen naa sama sama papa yëgul ah sa papa yëgul te sa papa nee na du xool télé Sénégal moom télé arabe yi lay xool ah d'accord donc télé arabe yi lay xool donc ku dëkkam yëgu ko te pourtant da baax maa seetaan benn vidéo boo xamante ni wala ay xale yu ndaw yoo xam ne kenn amu si ay di amuñu ay xale yu ndaw nekk Touba Gueye di gees dem si benn bâtiment bu àggul mun taxaa jël deux mille deux cent millions ñee mun koy dimbali si ay ay naar dëkku jàmbur yow balaa ngaa bale buntu këru jàmbur doo bale sa buntu kër pare Touba nga xam lu bon nga xam lu fa la nekk sarat bi fa la wullee njaay dorog bi fa la wullee njaay lépp fa la wullee njaay mun taxaa ni yëgul yow mun taxaa nga nga yëgul te ku defoon tey live vidéo foofu tey jii bi wax maam borom Touba naka sa du noonu wallaahi asi bu nu yeexee ñu rey ka kenn si interview Assane loolu la fi wax Abdou Khadir sa milliard nga yor foo ko leer ak as avant ñu ah? moom ku Abdou moom si dëgg Abdou Khadir moom moo xamal loo métti moom mooy mag affaire mag yi muy jaay bu ndaw la da baax kooku moo gën a bon képp. gis nga kooku mooy kooku mooy kooku mooy mooy kii su suuf daal moom mooy màtt melentaan su suuf kooku moo xale bu gën a bon yëpp moom Abdou Khadre ku bon la moom ku investir nga Abdou Khadre yow yow ku doomaraam affaire bi ni ngeen ko capturé Abdou Khadre yow ku doomu xaraan nga yow. yow lépp lu lépp lu wax si Touba parce que yow la lép yow la lépp yow la pourtant mbàkk-mbàkk yaa ngi si prison yi gëm ne loolu anamu tey déggu leen kenn ku leen jàppale déggu leen moo tax Sénégal na ngeen di delloo si seen xel te xam ne fii yàlla moo fi nekk na nu jaamu yar yonente bi loolu la nu sant maam borom Tuubaa soo la doon dox màggal gi du màggalu farata màggalu xaram la loolu dafa leen fa daray diine dafa leen fa daray yàlla. dafa leen fa daray yàlla loo xam yàlla. booy ba ngeen toog seen kër daray yàlla amu fa dabax. parce que bomb lañ leen fay dóor ngeen des seen bakkan ñoom dañ leen di tayle danañ leen rey tayle leen foofu pour seen intérêt ñoom pour maladie di dem rek. parce que xam nañu ni ñuy patriotique bu ñuy jëlee réew mi lépp tegu ci yoon. parce que damaa xanaa xamoon lii moo ko Sénégal. barke wax la. yi Sénégal. lii nga xamante xoolal damaa dë dë dë dëkk yi développé dafa am yii ñoom xamuñu yi. Ah. wala suñu yónnee dëkku Afrique yi suñu sama mbokku dëkkandu Afrique yi ñoom xamuñu ni Sénégal. Hmm. lii la parce que sama maam yi dëkk Malika parce que doxuñu lii ñoom dañu ñeneen ñi de seen dina ñëw yàq Sénégal dañuy yàq Sénégal sëriñ si toog si Sénégal gi moo xam foo mën a bokk dañu yàq suñu Sénégal apporté dara Sénégal dañu leen yàq Sénégal li Sénégal mel ni yéen sëriñ si yéen yàq vraiment parce que moom la ñu comprendre ngeen ñu dëkk bi ay jullit ngeen na pare Sénégal dañu meen di tàppa su xaari doomu karaamatu njaay bi imbécile bi doomu ñett xolam bi nga naan yéen Sénégal jàmm moo fi nekk

Hmm? te ba xawma lu moo gën a metti ah avec ça Abdou Khadre di nu di nu di dama ndeyam naan Sénégal jàmm moo fi nekk imbécile xaramatu njaay bi ngeen doon yéen yàlla na ngeen dee yéen dee ma ngeen seen bokkale bi ngeen nekk ak seen. oh <laughs> pardon dagg na <laughs> dagg na de oui dagg na boo mënee dellu dagg na quoi. way dagg na waa waaw waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam mais gars ñi bu leen yàgg ci ligne bi. dafa dagg quoi soxna si waaw waaw tonton Daba mën naa waaw allo. waaw. man moom xam naa du ma yàgg ndax euh, dafa am rek benn affaire bu tuuti rek boo xam ne daf maa xawoon na xarit ci nit ñi woote. Mm-hmm. waaw parce que man man dama lay déglu lu yàgg depuis ba nga ubbee sa YouTube ba tey dama lay déglu ma am ci yow euh, confiance di la déglu ngay wax lu am solo. Mm-hmm. waaw te ak lu mu lu ma tuuti tuuti tuuti war waruma jox kenn conseil la xam naa ne mat naa la doom waaye ñii di woote di saaga sëriñ si nañ ko yi mm-hmm. parce que kenn ku nekk da am gëm-gëm te mm-hmm. Ousmane Sonko dafa bëgg yoonu murit te sëriñam bokk ci yoonu murit mm-hmm. dafa bokk ci yoonu murit di sëñ Abdou mun bàyyi Seex Xadi bokk ak waa kër na kër ba mi ko jur bokk ak sëriñ Tuubaa benn baay dégg nga ñun am nañ droit bëgg Ousmane Sonko am nañ droit xeexal Ousmane Sonko waaye li may ñaan ngir yàlla ak jëmm yeneen ci ñi fiy woote nañ respecté kilifa yi te xam ni Ousmane Sonko ñu ko bëggee dimbali ñun ñuy woote tamit dañ koo bëgg duñu saaga kilifa yi. ok. Mhm. dégg mhm. que tamit Touba booy xool ba ca biir mën nga ni mbàkki mbàkki yi ñoo ëpp ci ñu bëgg sëriñ ñu bëgg Ousmane Sonko waaye ah, dafa toll koo xam ne ñoom duñu wax ci affaire politique. waaye bu dee yor kurus ak ñaan dañ koy ñaanal dañ koo bëgg te ñëpp a ko bëgg ñu baree ko bëgg man Touba laa dëkk donte maa ngi waaye lii woote di saaga di saaga gis nga maanaam uh, ay sëriñ diw nii la jabaram di def yooyu yëpp yoonu kenn nekku parce que kenn ku ne yaa ngi sëy sa borom kër ëllëg yamal xiyaam li lay dal yow dong yaa koy subir ci sa bàmmeel sëñ diw day takk greffage sëñ diw day day nangam yooyu yëpp suñu yoon nekk ñun li ñu war a respecté mooy ñu xeexal Ousmane Sonko mi nga xamante ni Sénégal moo ko ñor léegi tegal sa loxo foofu si dafa bëgg a dimbali xale yi soxna si dégg nga mais en tant nekk ci télé yi euh, soxna si di offense di wax yenn yi di tuute xol ñu ñi tamit baaxul pare nga da ngay déglu mais ñooñu lan moo nekk seen taxawaay tey ci waa Touba ñi nga xam ne ñu ngi leen tëj di leen tëj ci kaso bi di len jaay doole bay Fall taxway gi ñu am di gor ay jigen non non non dëgglu rek da nga bëgg wax deug da nga bëgg deug deug non non da ngay dëgglu wala ma coupé la quoi parce que dama la bay xalaat ma deug da ma la may nga dëgglu ma quoi mo gën da ngay dëgglu dëglul quoi parce que nak soy wax deug do wax deug partial da ngay wax deug te yalla tax la xew Touba ak lañu def nak def senegal ak ñom position bu ñu am tay mois de mars ba ñu dumay Macky Sall ñoom dañuy daw si yuuxu waaw lu tax lii injustice bi am Sénégal ñoo waxuñ ci pour lan la ñu nekk di def Touba di dóor gor jaasi jigéen te ay nit di leen dóor bref ñoom duñu wax politique aha kay même yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa politique yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa politique nañu waxante dëgg nit booy wax dëgg bul wax dëgg partial Amoufi, fi ma non déglu rek écoute-moi ce que je te dis voilà mais dama mais dëgg loolu ni fi woote mais yow boy wax pour dëgg da nga gang da globalisé. koy globaliser parce que li tax ñoo ñu mer ñoom ñoo amul taxawaay gu mat ok ñoom ñoo amul taxawaay gu mat te ñoom dañu def nit ñi gis teg ci non xoolal fi ku yakal ku ne yaakaaral yàlla ak yonent bi mais dëgg la ñu wax c'est une nation, un pays. L'ité Sénégal, l'île. Li. Vous n'avez pas côté, vous mettez une tête, vous baillez Sénégalais. Vous avez des têtes, vous avez des mais Bara la la def. mais est ce que mais est ce que limay laaj wa limay laaj limay laaj est ce que ki ni waxal moom est ce que mi ngi déglu xam nga lu am solo. non non yo ni yo no def ba déglu ñom dañuy déglu dama ne yo ni nga def ba déglu ko yo ni nga def ba déglu ñoom nan lañ def ba déglu. ñoom ñoo gën a dëgg li ñuy def maanaam dama ni dama ni oui dama ni Macky amul nopp laa wax non waxuma waxu Macky ñoo ak moom man waxuma waxi Macky Sall non dama ne dañoo waxut xam nga xam nga soxna si xam nga luy dëgg doo Macky Sall du ñëw nga tëjoog moom ci nekk munu munu bu ñu la nga ñëw taxaw ci penc bi commencé di wax soxlawuñu loolu am na ñi leen jiitu am taxawaay bu sëñ Saliou taxawaay bu mu am ñoom amuñu ko Dabakh Malick taxawaay bu mu am ñom amuñu ko lan moy lan pourquoi ñuy tëju ngeen bëggu ñu wax fi ay dëgg ba dëgg wala yeneen ñu gëna xam li xew Sénégal sëriñ si yëpp ñoom la ñom ñoo complot sénégalais da bëgg pour mu leer nañ fi négocier amu fi nañu bàyyi masla bi te waxante dëgg ku fi def naka sudul ñu wax la dëgg ñom lañu def mo raw saga sénégalais il faut que ça soit clair waaw nay leer ñoom li ñu def moo gën a raw saaga sénégalais eh no non du ma la jël bàyyi bàyyi doo tontuwante ak moom fii on avance on avance comment fii am partiel la fii dañu waxante dëgg amul ma demba amul ma pàtte eh, waaw waaw yaa ngi may dégg naka mu maa ngi lay dégg maa ngi lay ziar waaye di wax lépp dëgg la saa waay dabaax oui suñu tool ni ji nga xay billahi dooree garaaw waaye parce que gouvernement bi dafa def benn processus mais man naa ne da koo réussir parce que bim mu bëggoon a jàpp Sonko dafa def yoot xam nga di barricade di toj këtam ah, xam nga di toj këram di ko di ko di ko di ko xam nga jaar ba am occasion parce que bi ñu barricade Ousmane Sonko cinquante cinq jours ba peuple bi mënuñu ko jénne si cinquante cinq jours yooyu quoi laa ne boobu la gouvernement bi am fit dem jàpp ko léegi nag problème mooy maa ngi gis gars yi ñu ngi waajal ay màggal ak gàmmu ji nga problème mooy plus de mille mille et quelques personnes détenues mille soixante deux de l'opposition junni hein? ak juróom benn fukk ak ñaar la ñu téye ci kaso bi ci jaay doole bildaa wala te lay ah hein? waaw ba pare chef de l'opposition ñu jàpp ko mais fi ñu toll nekkuñu si libération wala wul Euh, euh, nekk nañu si libéré Sonko mais léegi ñu ngi si cadre Sonko est-ce que mi ngi si day dund wala day dee. si foofu lañ toll sax yow kii. ok non mu yéeme. waaw mu yéem billaa wala tallaay. incha allah. dana dund le. billaa wala tallaay. dana dund le man daal li may conseil. yaa man daal li may conseil gars yi da conseil sénégalais yi. Mm-hmm. c'est l'histoire qui se reproduire diggante Mamadou Dia ak Senghor ak Serigne Bossi moom Bossi Momadou Dia Bossi Momadou Dia xam nga dafa réussir ma Bossi Momadou Dia xam nga réussir parce que amuloon support de communication te mentalité yeewuñu noonu te bokkuñu contexte bokkuñu jamono bii moom du jàll parce que bii moom bii moom du jàll moom bii moom lu leer nañ dafa leer nañ tey nous sommes en position de force pour mu leer ok. Mhm. waaw par que Ousmane Sonko dafa waxul lu leer quoi dafa waxul lu leer Macky Sall rek Sonko lépp lu ma xam nañ ko bàyyi xel. <laughs> waay nee na Macky Sall na ay Karim ak ay xam nga ay kii euh, Khalifa Sall. waay parce que nee na moom ko yomb moom sax xamoon na ne gars yi dañ koy jàpp ne mais dafa ne ko yombalee quoi ndax moom il va résister jusqu'à. mais mais ci résistance boobu la ne. ñun ci la ne wallaahi te ji nga leen nekkee nii du ko mës bàyyi Ousmane Sonko ban teg la de lu mu wax dafay dëgg ci moom billaahi grandin bi du ko mës a bàyyi parce que maa ngi dégg si benn poste ñu naan Ousmane Sonko nee na dafay def résistance ba jusqu'à sa dernière siffle léegi nag problème moom mooy peuple sénégal bi ñoo war a jël seen destin non kooku moom gara gaal gi gaa yi di daw di génn si géej bi ma ne ma loolu non loolu daf ma rusloo fa waaw ma ne ñi xeex bi waaw ñi daw nañu daw rek ñoom nañu def amul problème bi na wallahi ok amul ok ok alors ñooñu bu ñu amoon taxawaay bi nga xam la sëñ amon amoon Dabakh malik réew du egsi fii du egsi fii ñoom ñëpp ñu ngi ci complot ñoo complot Ousmane ñoo complot sénégalais ñoo teg ñoom ñëpp ci lañ tout le monde ci pour muy leer fii ku ñëw fii doo wax partial tu dis la vérité wax dëgg te yàlla tax mënuloo ko ba coupé la quoi. ah Daba. waaw. waaw loolu gis nga. ça va. waaw ça va sant yàlla bu baax. waaw Omar Omar ma ma mu daaneel ma jël la woy. da baax ndaw soosu li muy wax li muy wax lépp lépp lépp naa fekk la affaire naa fekk la ana sunu ana sunu dix points yi ñu joxoon sëñ bi. <laughs> dañu si jox de dañu si de. ana dix points yi est wax na ci dix points yi. waxul ci dix les dix commandements. bi ñuy bi ñuy waaw bi ñuy mënee Macky Sall du ko sëñ bi moo génn ne jox leen ma seen doléance. waaw man dinaa régler lépp dem leen toog déglu ma. waaw a ana léegi lan la ci def. waaw dara di mokk mokkaaral bu ñu génnee di pokk seen loxo yaakaar ni ñoom moom àdduna bi dañoo moom doomu aadama yi. bu ñu waxee mu ne ameel bor. bor boo xam ne doo ko fay mu. maa leen ameel bor bor. boo ko fay bor. ah man man tëbuñu leen ci bor bi bu ko fay man sama wàll ci bor bi bu ko fayul baalu ma ko ba keroog yomal xiyaam man sama wàll sénégalais la amel naa leen bor <laughs> sénégalais laa dafa ñu ko euh, euh, amel bor mu dem ba mëne ko dem ba mëne Macky Sall mu ne jox leen ma seen doléance man dinaa bor la bu ma leen amel dinaa leen ko fay bu ñu ko fayul fii ba keroog yomal xiyaam man baalu ma sama wàll incha waaye loolu de non li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy ba yomb trop. lu ñu dox ak fokk seen i loxo. ma ne muy dox di fokk seen i loxo di bëgg a rey doomu aadama yi. li ni ñi ñu leen di topp rek ñoo ko def. li dal Sénégalais yëpp moom la. moom la ñu leen di quoi yow lépp lépp moom la. lépp moom la bu ñu bu ñu bu ñu bàyyoon suñu révolution mois de mars pare nañ ak Macky Sall ñii dee ñëpp moom am na ci responsabilité moom. li dal Sénégalais yëpp am na ci ah, responsable ëllëg ba tey complot Ousmane moom mi ngi ci biir mi ngi ci complot bi. lépp ci ndoddam lay nekk nag ñëpp moom la lépp dan ci lépp ci ndoddam lay nekk dina ko layoog suma borom insha allah leer la la quoi ñi nit ñi nit ñi nit ñi ñi leen di rey ku yëngatu ñu jël ci biir kaso bi mel ni ñi day mel ni duñu ay doomu aadama mel ni duñu ay doomu aadama mais yenn yabaate la ñuy wax yëpp dañoo yabaate ay dañoo yabaate fopp waay mais nit ñi leen di jox seen xaalis yoo ko def rek mi

dafa ruslu quoi. voilà mu da ngay toog ba mu yàgg danga naan est que nekk sénégalais te jar na nekk sénégalais dafa yee bilaay. yee Daba maa ngi line bi maa ngi déglu. d' accord jërëjëf waa waaw alors astu astu may ma quoi may ma rek après ma jël dama la ko ñaane may ma rek Omar yàgg na ci ligne bi quoi may ma rek may ma rek astu ma jël Omar dafa yàgg ci ligne bi quoi. way Omar. waaw grand Omar way xolal waaw mais vite fait man maa ngi di door a wàcc nii sax maa ngi ci tali bi mais pour nga jégal ma ci bi rek bu amee rumeur rumeur quoi waaw waaw mais xolal grand tabax gel boobu génn léegi nii da nga leen di comprendre quoi xam nga dafa am ñoo xam ne duñu judd ci ne la leen ñii seen seen ñii yéen yéen ñi ngeen war a yaakaar maanaam ñoom ay yàlla la leen def quoi yow foog nga comprendre ne ñii dañ leen def ay ay yàlla quoi ñoom foog ngeen comprendre moo tax ñoom doo werante ñoom parce que comprendre ñu ay jaahir lañ te bu ko nit bu comprendre comprendreul xamul yalla xamul yonent bi xamul luy lolu xamuñu deug état bi grand système bi ñom seen bop dañu am problème dégg naa ko mujjee génn tamit nag Ousmane dañ ko def Momar Diop Ousmane Ousmane Sonko lu tuddu Seydina Ousmane Sonko waaw surtout Bachir ak Alphonse Sonko tuddul Momadou Dia Ousmane tuddoon Momadou Dia ba àddunay suuf ba ci aduna bi sango suuf yaay seen système bi système bi seen politique bi ñu def seen organisation bi lépp këpp seen kaw poli Macky Sall gouvernement am ak sëriñ si ñoom ñëpp ñoo yem benn mbuus ñooy nasandoo ñooy noccandoo dañu def loo xamante ni dañu foogoon ne Ousmane du résister du def grain de respect ñu dóor ko bi dem continuer seen programme ñii di gàmm ñii di màggal ñii di yéey ñii di nappaaje ñii di ubbi ay poche du fi am. du fi am de yooyu yëpp dafa jeex Ousmane dafa posé seen i calcul. te Macky mu ngi am problème ak ak tubaab yi. fuuf tubaab yi ñu ngi koy ñu ngi koy martel guddeeg bëccëg ñu billaahi mu ngi ci ay guddi yoo xam ne. lu leer nañ nga wax. mënu reculer ci loolu sëriñ si ñoom seen wàllu bopp dañu am problème Touba ils ont divisé à deux dañ la dul wax li dëkk ba pare xam nañ ne système bi dafay jeex sëriñ gisoo doomu sëñ Abdoulaye bu génn di duulal papam dafay fan naan mm. sëñ Abdoulaye daan dekkil ay nit waaw jooju wax yow <laughs> kooku ba ma aimé ba ma aimé ci vidéo boobu sax bat waaye yow man dama ko gars yi ñoo commencé di comprendre boo yi léegi dañu commencé di di comprendre Moodu Europe Moodu Moodu mille cinq cent milliards et quelque lañu daan dugal dugalatuñu dernier sondage yi dañu gis na xaalis dugatul Sénégal gars yi duñu la wax ne xew de man damay suivre bourse yi damay dafa am ñoo xam ne ñu ngi xam xamante nañ quoi hmm. ay affaire yu wóor RG yu wóor samay mbokk ci dañu am na xam na université biir la ñuy liggéey moo ne amul jolof jolof amul weccit amul xaalis moo tax ñu nekk ci jafe-jafe yi seen màggal gi pourquoi ñu ciy insister wala gàmm yi di ñëw wala dañuy kule ay bàyyi na fekk lii ak lii problème mu xaalis lañu am Sénégal. danañ ko am parce que alxuraanu karim dañu am problème mu xaalis instant bi grand système bi dañu nekk ci ay jafe-jafe. Mhm. Ousmane dinañ ko bàyyi ci nii wala ci naa yow toogal tuuti nga seetaan leen. bañ beneen bi mooy boobu déglu naa Akhenaton démb vite fait rek ma daaneel ma bàyyi leen muy wax ne mu ne moom. li mu jot affaire bi am na lu ko ci avocat yi xaw a may quoi ci portable bi. Hmm. moom porte parole boobu noonu. laaj leen ko kan mooy Mbaye Gueye Fefty. Mbaye Gueye allo allo danaan dem ci salon bi Bass Abdou Khad fa la doon dajee gaay gaay xam na Adji Sarr Bass Abdou Khad xam naa dóor na ci moom comme addi ba euh, Adji Sarr na ñëw ak keneen waaw ak keneen comme Adji Sarr moom gaawal balaa sama yaay ñëw la moom xam nañ ko bu ñoom xalal am na loo xam ne grand bu leeree <laughs> bu leeree barki alxuraanu karim ñoom dañu nekk ci ay jafe-jafe dañu nekk ci ay problème de am na loo xam ne mën a guñ ko wax parce que avocat yi dafa am dañ ne li ci nekk mën a guñ ko révélé mais am nañu gaaw ñu pare ñu jox ñu dossier yi laajal maaxi ñas laaj ko moom ak Mimi Touré ak yeneen ak grave waaw yow mooy loolu nañ déggoo yow. d' après boo coupé ñu déggoo ci suuf caaw. jaajëf jaajëf waaw waaw alors ñoom fi fii xay ñu ngi leen di xaar barke salaatul fàtte ñu ngi leen di xaar na avocat yi gaaw pare jox ñu portable bi danañ leen weer ni jajj bërce bëccëg ndar kaam waaw. allo révérend waaw. bon euh, jigéen jooju bu ma ko tontuwul rek du ma mën a nelaw tey. ko gaaw gën a parce que xam naa ni. <laughs> ne ko ne ko yàlla yàlla bu muy wax. Hmm. bañ na ba mu ne dafay wax ak borom xel yi. jeex ak mbaam yi waxul ak xaj yi. Hmm. waxul ak lappata yi. Hmm. kankërlaa yi. gis nga moom en direct dafa oote. mu saaga waajuram yi te xamu ko ah, xam nga nit day muus mm-hmm. waaye ñàkk xel moo bon ci nit mm-hmm. sëriñ yi ñuy wax mm-hmm. sëriñ buy wax dëgg dinañu ànd ak yow ah ñun gis nga ñun tey Ousmane bu Ousmane Sonko bu ah, tegul tànkam ci dëggam ñu wax ko dëgg ah, xam nga nee na buñ leen saaga léegi nag may ko tuuti ma wax ak moom ne ko sëriñam yooyu yu mu ne noonu fankat yi dulkat ma commencé déjà par euh, sëriñam bu mag bu xaritam bi ma ma toog fekk lambada ci dëgg la fal ndayam pour mu comprendre <laughs> parce que bu amoon xam-xam bu amoon xam-xam du ñu toog di naan waaw yëgu ko woon dooma raam yëppul naa fekk fii ay complot kat la ñu yi ba pare fii la ñu jekku Macky Sall mu ne nañ ko may ñu may ko muy katta ndayam nekk fii ak bëñam yi niroo eh, eh, eh, mu mu muy naan ah, waaw yoral bor ah bor bu mu ñu yoral mooy bu rey ñu balaa mu ñuy rey ñu dëgg ndayam ba génn bool bu ok xamuñu sax parce que d'accord ah de ngeen baal ñu nag moo ko def quoi si <laughs> si <laughs> <laughs> complot kat lañ ñoom ñoo ko complot <laughs> moo tax sa waay sa yaram bi tàgg na de ara rek ko <laughs> sister ñoom la de ñoom ñoo ko complot ñoom ñoo complot sénégalais yi ah waaw ñoom ñoo complot sénégalais ñoom mafia bi woy xoolal hmm? gis nga xale bu jigéen boobu xaw ma meer la xaw ma lu mu doon. kii ah. génn sànq kii wax bu ñu saaga sëriñ. Ah. ne ko ñun ñu ne ku bëggul ñu saaga ñu tas sa sëriñ ndeyu sëriñ. Uh-huh. ñun bu ñu amee problème bu ñu jekkoo na sëriñ yi yëpp képp seen gémmiñ yi. waaw ah, jeex na. ku bëggul ku bëggul ñu saaga sa sëriñ. waaw bu ñu jekkoo na ñu képp seen i gémmiñ waaye posé nañ ko fi dégguñu leen. buuju toj nañ otoom dégguñu leen yow ak say sëriñ ma wax la bokk sa dënnu ndey ak say sëriñ quoi yow voilà. waaw ba pare ba pare waxatuma loolu ñu naan yëgu ko woon c'est grave ça veut dire ki leen ki leen jiite. waaye ma ne il est complice. <laughs> complice la baatin bi newu fi. c'est grave li ñu wax c'est complice c'est naan ñoom ñoo com muy ah, mafia. ñun bu ñu jekkoo ñu génn ñoom ñëpp def seen nu leen neex comme ni ko maam seen di ko waxee Père Noël. waaw waaw mafia ñun ñun ñun ñoom buñ ñu jekkoo ñu ne tekk tekkaaral mais incha allahu rabbi gis nga euh, deux mille vingt quatre hmm. wallaahi kii dina génn dëkk bi fii dina génn dëkk bi ci nii non sëriñ si cot ci ngeen di def di ngeen teg seen tànk ci siraatikal musam par force parce que yéen moom la ñit ñi moom leen réew bi di ngeen ko teg fii wala ñun ak yéen ba da ngeen di teg cot ci ngeen di def wala ngeen abal

soixante détenus yi ay doomu tuba ak ñeneen ñi tej di torturer ñom di jëbat si ñi assassiner ak sénégalais ñi ray di torturer sandi ci géej du am responsabilité la mom sëñ bis yaa ngi ci biir de yow yaa ngi dagg ci takk rip riigu ji toog wax mais mom la mom la voilà c'est compliqué au Sénégal aujourd'hui sur le Sénégal est euh, comment on appelle est traîné dans la boue un peu partout dans le monde c'est Macky Sall mais nañ dem rek nañ dem waaye yàlla baax na. nañ dem ok ma bàyyi la keneen ok mafia bi de waaw. mu tegal leen benn ngeen xam ne dóorkatu bon la day dóor bonam benn ba wax benn takk ñëw taxaw dóor ay asisam lay tux laag ba ba ba ba réer ñëw taxaw déglu leen ko fii. yàlla kenn du ko utal moroom. benn yàlla moo fi nekk. réew moom. kenn du fi xalu ba nekk ben yàlla mo fi nek moy def moy dindi moy fale moy folle qul illahuma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha' bi yadika al alxayru innaka ala kulli shay'in qadir rew mom kenn lu fi falu te neexul Sëriñ Tuubaa dëgg nga ndax ma sàmm dëgg kenn du fi falu ba adduna tukki da nga am sëñ Tuubaa yàlla kenn du ko utal moroom benn yàlla moo fi nekk mooy def mooy dindi mooy fale mooy folle qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tuzillu man tashaa'u bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir réew moom bon réew moom xam day tux ay ay ay achichom benn tat day tux tat dagg place nag ci penc mi quoi ñu jox ko muy xoteeku quoi gaayen bii quoi dégg ngeen léegi bu ñu ko tontuwee ñu ne noo dañuy attaqué si Amadou Bamba Cheikh Amadou Bamba amuloon poos poos xaalis di ko tey dafa dumóoyu àdduna si Amadou Bamba yàlla yonent bi alquran jàngale teg jaam yi ci yoon pour ñu dem ci ñëpp aji ñoom ñëpp Bamba loolu la xam Bamba xamul politique kan kan kan Bamba liggantewul loolu léegi ñii bu ñu ko waxee xam ngeen doobaraam ji dafay tux achicham ba taatam tàng jër mu sol koppatiyam ñu teg ko nag mu ñoo toog nag commencé nag di wax ay waxu dof soxna si yow mi doon wax dégg nga lii dof dof waxi dof mi ngi nii waxi dof waaw wax bu dofee nopp yu koy dëgg wér waxu mi ngi wax takk lay def ni xaj dër toog nag teg koppati bi quoi bopp tàng jër mu taxaw na di wax wax kañam c'est ça li xew Sénégal yëpp mi ngi noonu. waaw grand tey mu neex de tey pareeguñu de waaw. <laughs> waaw pareeguñu du ñu pare. yii tey man ñii di wax ak yow taalibe murit la nañ dem rek mais man Pape Moustapha je ne le considère pas comme kilifa diine. Mhm. grand bu ñu amoon baatin ñoom war nañoo jomb di toog ak Macky Sall. parce que franc-maçon franc-maçon. fenkat sàcc reykatu nit franc-maçon xërëm rek wax waaw bu ñu amoon diine bu ñu amoon baatin dinañ seexlu toog ak Macky Sall. tekki dara gis nga sëriñ bu fi futtiwul sagat dem liggéey doo tekki. maa la wax loolu de ñu yeewu na <laughs> waaw. futti seen gat dem liggéey. moo gën de. du duñu tekki. ñu ngi doon looloo fi xew. looloo fi xew. Mhm. naxaate bi moo fi jeex. jeex na tàkk te li nga wax noonu la demee ñi si dee yëpp après 2021 mille vingt et mooy le principal responsable. moom la de. te dina ko layoo ak sunu borom. barke que salaatul du dina ko layoo ak sunu borom. waaw parce que grand bu fekkee dama yor da nga damay xeex ak nit mu yor paaka ma fexe ba daaneel ko bu ma ko daaneelee nga ñëw intervenir ne bàyyi ko dootu la laal mu wëlbatiku jëlaat paaka boobu jam ma ko yow yaay responsable. jeex na. waaw Moustapha Mbacke loolu la def il est responsable qu'il le sache. waaw waaw ñoom ñoom xeexu góor jigéen bi li ci Abdou Karim Gueye xeex dañ ko ci xeex. xeexuñu ko de. yow ñoom ñëpp pat la ñu def dugal nga dugal nga dossier góor jigéen. député yi jël ko sànni ndayam ci mbalit ñoom bu fekkoon dañu représenté diine dañuy taal seen oto ne na ma taalibe yëpp fekk fële eh, buntu assemblée. waaw waaw bu ko Moustapha waxoon mbay Sy Mansour wax ko. ñale bi ñu reculé ci loi góor jigéen. bu doon da baax Malick nga ban acte la ñu posé. ci biir assemblée ne la day dugg pour religion bi. parce que salaatul fatiha posé wuñu benn acte ci religion bi. grand li ma lay wax nii man la dal daaw jéeg dama dem masaalikul jinaan di julli foofu àjjuma. Mhm. sol pantalon ak chemise ñu ne ma doo dugg ci jumaa ji. déggal ma loolu pantalon ak chemise. loolu ban diine la. te ñoom ñu ngi doxaan jabar jàmbur xaalisu franc-maçon ak góor jigéen lañu la ñu tabaxee jumaa ji. jumaa ji waaw il ah. faut dire la vérité. il faut dire la vérité. léegi nag bu loolu weesoo bon damay dégg ay interprétation ci actu Ngagne Demba Touré quoi. Mm-hmm. bon ngañ dem Demba Touré man li ma gis li mu def c'est un retrait stratégique. ah mais non comprendre c'est super. parce que non mais grand du question dafa daw Ngagne Demba Touré ku ko gis xam ni am na xel am na fit. Mm-hmm. mais boo nekkee ñoo xam ne ñii ay dëmm lañu. Mm-hmm. da ngay utiliser sa xel aussi. booy parce que parce que booy bële ni ñu koy woowee Ousmane man ça fait plus de deux mois dig daf ko woo nanguwul dem. waaw mu ngi làqatu quelque part. demul mais ça, bu war a génn dina génn wax ak gars yi sensibiliser nit ñi. oui. booy bi aussi c'est pareil bu génn fi mu toll nii bu ñu ko jàppee dañ koy yóbbu tëj ko ci kaso bi sànni ko fa pour insurrection. mais bu fekkee am na possibilité dem génn retiré wu dem dëkk bu mel ni Mali c'est un pays stratégique. mais et ça veut tout dire c'est un coup dur pour Macky Sall lool. mais mais attention. mais le combat là. bu mais bu ñu tëjee. Ngagne poste bu coordonnateur national GPS. porte mais il communique très bien mais Ngagne Touré bu ñu ko téyee mais combat bi communication combat bi kan moko ko gàddu déggool ba mu tàngee dafa dem làqu ji Allemagne fële wala dafa refusé Ngagne Touré dafa do retrait stratégique pour mun porter combat bi de loin là-bas mun def ay vidéo ay conférence am di ko di wax di dénoncer combat bi di téy mu dem mais c'est normal djégué Antony Koïta jël ay technique stabiliser Macky c'est tout mais c'est un retrait stratégique parce que dama gis sank maam seen génn waay waay Ngagne Demba Touré dafa waru woon daw mais moom dafa daw xoolal euh, am na ñeneen ñoo xam ne jaruñu déglu sax waaw avancé quoi waaw d' accord dama ne activiste hmm. boo xam ni yow yaa ngi fii toog yow tey jii bu ñu la joxoon billet suba doo dem parce que loolu du xel du question da nga ragal mais stratégie la hmm. da ngay dem wàcc Macky Sall arrêté la sànni la kaso dëkk bu amul yoon communication bi ñàkk benn communicateur mais sa xel ngay demee waaw mais dafa yomb nga toog sa kër comprendre nga naaj bi génn nekk sa biir kër sol sa xaw ma sa lan naan kii daw na kii daw na mais damal Sénégal yo bu fekkee dawoo. ma ne damal Sénégal déglu ma boo ko jëndaloon billet suba tegal ko ci mille cinq cent euros du dem. ma ne ñii naan parce que waaye ma ne ñii naan dafa daw yëpp ñoom ñëpp ay mm. doomaraam lañ ci système bi la ñu. waaw yow c'est pas vrai c'est pas vrai c'est une ah. bonne stratégie bañ ko jàppale ñaanal ko France ci général de il s'est retiré pour mën a ñëwaat récupérer dëkk bi. jeex ñeneen ak ñeneen stratégie de communication la. son son son son courage est à saluer. sa stratégie. waaw stratégie la teg génn na fa dem na Mali. très bien dañ ko jàppale ñaanal ko te xeex bi dañ koy gagné grand incha allah. waaye moom kay bàyyi bàyyi yàlla ñoom ñoom bas. ku futtiwul sa gar dem liggéeyi dootoo tekki taalibe yi dootuñu leen yónnee saram ndeyam. loolu c'est fini. ay dem mag exploité jeex na. jeex na de waaw futti sa gar dem liggéeyi xam nga sëriñ yi lan lañ ci doon wax am na sam benn goro. da doon wax naan sëriñ yi noos ak ñuus. waaw noos la ñuy def bu ñu demee suñu borom ñuus leen. c'est terminé. Ah. waaw waaw. dil rek ci kaw Sénégal yàlla xam na ni amuñu baatin bu ñu nitul dara. dara tous grand. waaw <laughs> baay ma yamale ko fofu gars yi dugg jaajëf fuck off dara no sense donc ñu ñu continuer suñu live bi hein? euh, ah. François. François nous sommes donc face à trois scénarios. le premier Sonko est déclaré éligible il gagne la présidentielle. le deuxième c'est qu'à quelques semaines des élections, on invoque un cas de force majeure pour ne pas les organiser, comme par exemple une recrudescence des tensions en Casamance, qu'on s'attelle d'ailleurs à allumer en ostracisant les habitants de la zone depuis quelques semaines et en rappelant dans les rangs les soldats envoyés à la retraite, ou alors on se débarrasse du successeur désigné au sein de l'Alliance au pouvoir pour justifier le reniement du renoncement, ce qui est la marque déposée de alassandra Draman Ouattara et a très bien fonctionné en Côte d'Ivoire. Le troisième scénario, le président sortant ne se représente pas, son alliance au pouvoir désigne un candidat qui n'a pas de grande chance de gagner, l'adversaire principal, le plus dangereux pour la survie du système, est éliminé d'office, et c'est l'un des opposants à Macky Sall mais pas à la France-Afrique, qui remporte aux surprises les élections. Comme ça, on aurait satisfait tout le monde. Il y aura eu alternance à la tête de l'État, mais le système France-africain est sauvé. Je vais m'attarder sur la troisième option car elle est la plus sournoise, la plus raffinée et la plus probable. Et pour cela, il faut que vous en cerniez bien les contours. Ne perdez jamais de vue la place qu'occupe le Sénégal dans l'édifice france-africain. Il y a quatre pays qui sont aussi précieux et indispensables que la prunelle de leurs yeux pour les occupants successifs de l'Élysée. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad, pour des raisons diverses. Le Sénégal, c'est le cerveau, c'est le poumon administratif de la France-Afrique. C'est là que ce système mafieux a été pensé, intellectualisé, Ancré dans les mœurs. La Côte d'Ivoire, c'est la poche de la France-Afrique, le socle économique du système. Son pendant en Afrique centrale est le Gabon. Quant au Tchad, c'est le centre de gravité militaire. Et comme je le dis toujours, l'armée française est la matrice de la France-Afrique. Vous l'enlevez, le système s'effondre. Alors quand le Mali s'échappe, le Burkina s'échappe, le Centrafrique tente de s'échapper, ça leur fait mal, très mal même, car c'était leur réserve pour l'avenir qui s'évanouissent dans la nature. Mais envisager le Sénégal s'échapper, c'est carrément une douleur indicible, intolérable. C'est le passé, le présent, le futur qui s'en vont d'un seul coup. C'est inimaginable pour eux. Alors voilà ce qui va se passer. L'Élysée va tenter de blaguer Ousmane Sonko, lui passer des coups de fil, l'assurer qu'on n'a rien contre sa candidature, qu'on est à ses côtés, et essayer en parallèle de le détourner des promesses qu'il a faites aux Sénégalais, d'influencer son agenda. Lui souffler que ce serait bien, par exemple, s'il prenait ses distances avec Guy Marius Sagna, cet extrémiste qui ose avoir une ou avec l'avocat Juan Branco, intenable selon Paris, parce que toujours aux côtés de ceux qui veulent renverser le système en France. Et pendant qu'on l'endort, on déroule le vrai plan. Jusqu'ici, oui, oh. ont surtout été du fait des membres et sympathisants du PASTEF et de ses alliés. Mais l'annonce d'une candidature de Macky Sall aurait jeté encore plus de personnes dans la rue, car il y a des gens qui n'ont <laughs> aucune sympathie pour son co, mais qui sont aussi viscéralement contre un troisième mandat de Macky Sall ou contre la rupture d'une tradition démocratique dont ils sont fiers. En déclarant qu'il ne se présentera pas, Macky désamorce cette crise qui aurait vraisemblablement balayer son régime avant l'heure. Il peut dorénavant procéder à l'arrestation d'Ousmane Sonko sans que l'ensemble du peuple se, soulève. Car le vrai plan, ce n'est pas seulement d'empêcher Sonko d'être candidat, mais également de l'empêcher de faire campagne pour quelqu'un d'autre au cas où sa candidature serait invalidée. Donc, il faudra soit l'envoyer à Rebus, soit le maintenir en résidence surveillée, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, mais en lui coupant tout moyen de communiquer avec l'extérieur. Fini les lives et les coups de fil, sauf ceux de l'Élysée et du Quai d'Orsay. En parallèle, la suite du plan sera implémentée avec la réinscription de Khalifa Sall et Karim Ouad sur la liste électorale et l'acceptation de leur rééligibilité après avoir purgé leurs peines de prison respectives. Karim, qui réside au Qatar, a d'ailleurs fait un petit gasoil en Turquie pour s'inscrire discrètement sur la liste électorale le 17 avril dernier en violation des dispositions du Code électoral sénégalais. Ce qui avait été impossible en 2019 s'est fait au calme en 2023. Et Macky Sall a annoncé dans son allocution de lundi qu'il avait convoqué le Parlement pour procéder à des modifications législatives. Pour Emmanuel Macron, le successeur de Macky Sall pour sauver le système doit venir de l'opposition afin de désamorcer toutes les mines qui pourraient faire échouer le plan. Inspiré par la réussite du scénario congolais qui a vu Félix Tshisekedi, avec la complicité du président sortant Kabila, rafler la mise au nez et à la barbe du candidat du parti au pouvoir et du leader de l'opposition Fayoulou, il veut répéter la même chose au Sénégal. Et comme il sait que Sonko ne peut pas se permettre de renier ses engagements auprès des Sénégalais qui sont morts pour lui, et qui n'attendront pas dix ans, le cas échéant, avant de se lever pour le chasser avec la même véhémence qu'ils ont employée pour contrer toutes les attaques contre lui, il a préparé en douce son alternative et repéré sa solution au sein de l'opposition. Trois figures ont le profil qu'il faut, Karim Ouad, Khalifa Sall et Mimi Touré. Qui sera in fine parmi eux le candidat de la France-Afrique, venu pour berner les Sénégalais et perpétuer le système spoliateur qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas voir le pays qui héberge le siège de la BCAO sortir du franc CFA qui ne veut pas voir les 350 militaires français du Sénégal être priés de repartir alors qu'ils sont si utiles pour effectuer des saisies de drogue en haute mer dont on ne voit jamais la destruction et qui laissent toujours tranquillement repartir les navires de trafiquants après avoir pris leur cargaison. Une France-Afrique qui ne veut surtout pas assister à la mise en œuvre d'une gestion souveraine et dans l'intérêt du peuple sénégalais des ressources gazières et pétrolières, comme Ousmane l'a décrite dans son livre qui va s'afficher sur l'écran et que vous pouvez télécharger gratuitement dans mon canal Telegram. J'ai ma petite idée là-dessus et j'en ai fait part depuis longtemps à qui de droit. Mais ce n'est pas seulement moi qui dois parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. À bientôt. Donc, euh, euh, li c'est très important ñu wax ko xam nga tax ma tek ko c'est pour euh, euh, parce que français yi seen problème yëpp mu ngi tamit ci femme bi quoi comme ça cette femme là dina mën a ñoom dinañ xam ce qui se allo. allo Daba. waaw. Non def nag yaa ngi ci live waaw. ça ñun suñ xol dafa jeex kii ndaw soosu dafa yabaate kii dugal ñi di wax seen seen seen yàlla yii nii ñi dañ yabaate seen yàlla doomi xaraam yii nii kii xanaa xamut ne ku bëggut ñu wax sëriñ bi dara bi ñu naree rey Macky Sall sëriñ bi moo fi génn teddu ne ñu ñu ne ñu ne téye paaka bi ne taxaw leen waaw ñu jox ko suñ ay point hmm. da réglé na suñ point ñi complot fii complot Ousmane Sonko ñi tey war di ko teel di ko rendi mhm. sëñ Abdou Ba Abdou Ba xaw ma saaral xaw ma doomi xaraam googu noonu daan maase aji saa di ko daan maase ñii ñëpp ñoo teg a complot bi. so ñii ñii ñii ñii ñii dañu dañu dañu bëgg a ndax lan. ah taxaw ah. xeex rek fii moom. ñii dañoo saaga ndey sëriñ si de. fu mu ah. nekk amatul masla amul ñii de yow moom bul saaga de waaye ñun bàyyi ñun ñun ñu saaga seen ndey. because ñi day yabaate suñ toll nii suñ xol dafa jeex de si gatsa gatsa lañ nekk fu mu nii. Mm-hmm. xam nga ñii ñii ñii day njabaate waaye ñii ñii moo tax ñoom dinañ xalakoo seen sëriñ yëpp. Mm-hmm. yow amuloo dara looy wax nga naan buñ lifin sëriñ yi sëriñ bu si bugut ñu wax sa lifin génnal si pour si mbir mi. Mm-hmm. ah yéen ngeen complot nii tey kii ñu war a rey Macky Sall mu ñëw téye paaka bi Macky Sall di rey nit ñi sëriñ bi tiim loolu waxu si. ŋaaŋu si yaabewu si tooki am fi problème mu dem jël deux cent milliards xaw ma dem di ko jox waa tooki sas yow sa mbokki sénégalais yi toog foofu noonu ah kon yow faalewuloo sa doomi réew yow beneen doomi réew kon moom moom moom doomi xaraam la leen sëriñ bi téye moom si doomi xaraam yi la bokka moom mii toog di wax sëriñ bi ok sëriñ bu dul seetaan sa dikka ah sëriñ bu du seetaan li xew sa dikka ok ñi daba ñun suñ xol dafa neexut kii ñii bu ñuy yàpp d'accord yow xaaral ma may ñeneen ñu duga hmm. alors jabar DJ DJ Badji dafa dem ci ambassade France ambassade Sénégal en France dafa grève de faim grève de faim parce que jëkkëram dañ ko rey DJ Badji dañ ko rey dóor ko acide ba mu seey ndaw si dugal na loxo dugal tànk dugal bopp dara tous Nous avons grève de faim gis police France ñoo ambassade Sénégal te police France amul droit ñoo ambassade Sénégal territoire étranger la la femme de Didier Badji était en grève de faim et nous avons vu la France envoyer ses policiers pour venir dégager cette dame là qui est victime son mari a été assassiné par le régime de Macky Sall. vu la France Hmm? pour au nom de quoi Pourquoi Pour là hein? Pourquoi Aujourd'hui, elle est en grève de faim. Tous, euh, pour réclamer, même les enfants réclament leur papa. Devant la réclamation des enfants, là, cette dame-là ne peut rien dire. ñu dumóoyu ko gendre saisir na gendarmerie kenn faalewu ko kenn defu ko dara tey mu ngi ci grève de faim ndaw si dañu waxante dëgg parce que nit dëgg dëgg moom yàlla yàlla dëgg la bëgg nañ ko wax mu deex hmm? ah loolu mooy dëgg donc euh, dañ ko jàppale ñun ñëpp ci combat boobu ci ak ndool te bu leen ci génnee kenn dootu leen topp amul leneen lii kese la sénégalais nag ñoom <laughs> le premier euh, soin bi Euh, Macky Sall demul ba tiit jaaxle. Hmm? départ fii ak guddi dem Touba ñu di ko yooxaloo mu gis sëñ bi te jóg moom lu yàgg. Sénégal yëpp commencé di nooy waat naan jàmm dina am sëñ bi yëg na ko mu Macky Sall dem na fa. bañ xëyee suba teguñ ci ay fan sëñ Mountakha woo Baye Fall yi ni leen fii ko fi manifester xar leen gàttam waaye buñ fi nekk di nax suñu bopp nag wax dëgg yàlla buñ fi nekk di nax suñu bopp. tax gis nga diggante sëñ Mountakha Ousmane Sonko bañ ko yàqee du tey ba mu fi Ousmane Sonko génnee di wax ne sëñ Mountakha bëgg naa koo gis ay weer a ngi nii gis mënuma koo gis ku ñuy wax maam Thierno di doomi sëñ Mountakha ba mu génnee ci kaw Ousmane Sonko la dal naan ko ay ban boo defoon lii la sëñ bi dugaloon kon doo egsi fii doo nangam bu naxante dëgg gi suñ borom moo ko moom ñëpp ko yëg dañoo bokk ci complot bi ñëpp ko yëg kon leer la ñëpp ko yëg léegi xew Touba ne mooy xew Dakar Touba nga ne ñu dégg leen Baye Fall ne ni ko fi manifesté duma leen ku fi leneen duma leen camion yi nangoo boppin jàmbur yi ñuy xus yëpp ci manifestation yi donc lañ lañ ko commencé wax jee fi nekk bu ñu sonal suñu bopp nañ avancé ci leneen fii ku fi dugg naan ay nañ ko wax sañ mun taxaat da ngay kamafule rek ñun ñëpp ay murid lañ ñun ñëpp ay murid leen arrangé wul parce que ñu ci bëree bëri dañoo yaakaar ak recherche bu nekkee ci du toppee or ko demewul noonu boo dee xool ba ci biir day mel ak soxor dañoo soxore sénégalais ñoom jàpp a teet muy famille maraboutique ak ak gémmiñ bu waxul dëgg waxu fen lii moo xew a génn ci ndool ba faw wala ñu ñàkk fu la des ci ak ndool sëriñ si continuer di leen not hmm. lii ñuy dund Sénégal nii du lislaam du dara ak noteel dong la aku njaam du lenn nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg waxoon naa ko naa ko fi waxaat dëkk yi amul tarixa yëpp dem nañ seen yoon bu yàgg ah sëñ Ahmadul Xadim ba muy sos tarixa murit jàpp ay nit di not ak di di leen maateeg di di lu am ci ñoom taxul woon ak buum rek la ko jàppe woon nasu ci buum gii jëm ci suñu léegi nag ñeneen ñi ko ñi fi ñëw dond ko ñoo ko jël def ko moyen de de de isukaay di not jaam yi fu ñu fekk gor yi di leen toroxal doomu adama yi kenn gënu ci sa morom ñëpp ñi nga gënantee ci suñu borom te xol bu laab la la nit ñi gën gënantee yonent bi Seydina Mohamed bu ko suñu borom ne ko bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil على آله وصحبه آية وفرده أمته آية صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقت سلسال وقني وقت سلسال وقني كي أها على آية آله وصحبه وقراءه وفرده آية أمته صلى الله عليه وعلى kooku mooy sëñ Saalum waaw yal nañu yàlla defal sutura. kenn kaa ngi de. coow yeeg yëngu-yëngu yal na ko yàlla dal. huwa al muharrik wal musakkin. yal yal na yàlla daral. yal na yal na yàlla daral. de Dabax Mali. ñoom ñëpp ñu bokk d'accord ñu bokk waxtaan ci li ngeen di wax xam na ko tubaab bi tuddee dialogue dialogue baax na de ah ngeen ko waaw Thierno waaw waaw maa ngi lay jaar maa ngi lay jaar ñu lay fay non dama dama dama dama kontaan dama kontaan ci sa live tey bi quoi macha allah. Mhm. li nga li nga wax. boo bëggee dégg dégg. Mhm. parce que mënoo wax ni yow xalifatullahi fil ardi nga ba pare gis mhm. jaamu yàlla yi ñu leen di mbugalee gis jaamu yàlla yi ñu leen di toroxalee ak coono bi ñu leen di teg. nga taxaw ne pat. ki nga xam mo nekkon khalifatullah fil ardi muy muy salallahu alayhi wasallam bi fi nekké da daan jël li nga xam ku ñu togn ku neew do la ñu togn la mu fexé ba jël sa dëgg delloo dox la mm-hmm. tay Ousmane Sonko ñu ko togn ñepp ci tek seen bëtt xam nañ ko tooñ mm-hmm. ñi ñu tuddee kilifa amul kenn ku ci réagir taxaw wax sétan mm-hmm. ci sot la bok so bëggee dëgg-dëgg sétan ci sot la bok kon ñom ci ñom ci ñi sot Ousmane Sonko lañ dañ ko complot sax ci bokk nañ ci complot de. dañ ko complot. seen kaddu yi ñu téléphone bi de mooy bi. mooy sot bi te gis nga yàlla du nit. Mhm. te li ñuy def lépp seen kaw lay seen kaw lay këppaat. waaw wala nañ seetaan nañ dem jamono mi jamono mi dox am na lu bëri ngi commencé leer ñu ñaañ ko commencé. Mhm. xam mhm. dinañ gën a xam. te yàlla xam na ko bis bu Ousmane bis bu demee ba toog nekk président. yenn dossiers yi sax laa lay wax yenn dossiers yi nga xam ne da koo umpoon dinañ ci xam lu bëree bëri. Mhm. bu boobaa sénégalais dañ gën a yeewu. Mhm. Mhm. portable beeg yooyu waxuma ko de bis bu ba nekk président. ba nga xam ne yenn secret d'état yi nga xam ne dañ nangam yëpp tegu ci loxo. bu boobaa yeneen yi sax na gën a feeñ. ñu gën a xam ne nag nekk Sénégal benn benn mafia moo ko seexoon di cëroo xaalis sénégalais di naan dërëtu sénégalais. grand Dabakh. li nga wax rek li nga wax rek moo am xoolal ci ay jëmmi Serigne Saliou nga xool jëmmi El Hadj Abdou baax Dabakh nga xool mhm. jëmmi ñi nekk tey. Mhm. du benn sax. du benn. da nga xam ne ñii ay mafia lañ toog ay seize or toog ci nangam ak di séddu ay milliards. sa mhm. soxna xeesal ba ba mel ni ba mel ni dànge bu nga man xamu ndax man xamu ñun si ban Sénégal lañ ne quoi. ah mu ngi noonu de. dafa ñaaw. moo tax ñooñu bu ñu jëlee Ousmane di ko def liñ koy def non warul bett Sénégalais quoi. warul benn Sénégal la nga xam ne benn groupe mafia la ñoo taxaw benn instant di sot ki nga xamante ni dëgg la quoi bu Ousmane parce que Ousmane da leen gën a sell. Mm-hmm. da leen gën a ñeme dëgg. da leen gën a jub. Mm-hmm. Mm-hmm. looy wër ci njub Ousmane la leen góob yow ki nga xam ne dafa nekk impôt domaine mosu fa lekk juróomi dërëm. tey nga bëgg a jël ay cas yu ñàkk a fay ay cas aji saar rek jël ay yeneen ak yeneen yu ñàkk a fay. Ndeye Badji xam naa ne live bi commencé na dinaa ko teg en direct. léegi ñu ñu expliqué xam nga njaalo njaalo sàcc la. waaw. njaalo sàcc la léegi ku sa ku ñuy teg impôt domaine ngay gis ay milliards ay million sàccoo ko noonu ngay sàccee benn golo benn baabur bu ngas bu ñu wax aji saar. Oh. wax nañu wax le ñi nga xam ñooy naan rep sénégalais ñoom ñooy sàcc ñoom ñooy njaalo. Mm-hmm. buñ jël loolu di ko taf di ko taf Ousmane mu sell. Mm-hmm. xamuñu luñ bëgg ci Ousmane. donc nañu bàyyi. Ousmane Sonko wallahi al azim kum ci demal élection wallahi al azim midi laa la wax ñu pare ak yow. midi élection balaa midi Macky Sall commencé takk ay dëbësam ci palais bi. leer la somal nag kum ko ci séqal yàlla xam na ko bu ñu dox di waaj a dugg ci midi. carte nañ ñu xam ne Ousmane battre na la wallahi al musul am élection musul am Sénégal mooy am. Mhm. quatre vingt quinze pour cent lañu wallahi al kum ko séqal quatre vingt quinze pour cent la lay te ñun soxlawuñ benn candidat France amul benn candidat France nii Khalifa Sall nii keneen nii keneen ak keneen benn candidat lañ soxla muy candidat Afrique mu mm-hmm. ñu liberté Afrique dañoo soxla liberté. dañoo soxla indépendance totale. incha allah boo bëggee dégg-dégg. incha allah soxlawuñ keneen ku ñu Ousmane Ousmane lañ soxla mooy candidat Afrique mooy candidat sénégalais. Mm-hmm. candidat France soxlawuñ. waay. ñoom seen ngeen ba mu roo ñu toog soxlawuñ leen taxuñ ñoo jóg. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw maa ngi jégalu nag may ñu yaatal gën a yaatalaat incha allah d'accord alors ñu jeexal ci yal nañu yàlla defal sutura coow yeeg ak yëngu-yëngu yeeg na ko yàlla dal huwa al muharrik wal góor gaa na yàlla daral yal na yàlla daral te teeyal xel yi ba mu teey ñoom ñëpp ñu bokk d'accord ñu bokk waxtaan ci li ngeen di wax xam na ko tubaab bi tuddee dialogue dialogue baax na de voilà kii mën na al amin donc euh, ñu ngi wax ni donc euh, euh, commencé nañu Euh, pap ale commencé na alors donc je sais pas bu dee mun naa ko euh, euh, teg fii ah, Dakar matin mi ngi nii. di mhm. Ousmane lay ñaan ci barke borom Touba donc pap tey dem nañ seeti Ousmane li xadi wax rek laay yeggali dem nañ seeti Ousmane. donc ni euh, ñu ko gisee honnêtement très honnêtement neexul les gens nous connaissent très forte muy man muy mom. Le problème amé nit bu ñëwé ci kër gi daf ñi naan des di amo len ndoxu bët do len joy. mais cette fois-ci le problème nous a secoué ouais ça nous a secoué bu dee mm-hmm. dëgg rek ngeen bëgg dégg et ça nous a vraiment touché Mais que commencer depuis le premier jour moi je peux dire que je suis témoin Je suis laaj ci l'hôpital. hôpital bi li indi hôpital arrestation bi On donc dañuy jiitoo ci arrestation bi justement il ci arrestation bi lan moo parce que gis nañ sais vidéo boo vous yuuxu di xaaj lan xew ci arrestation bi euh, dama yuux ndax naqar dama yuux ndax naqar des fois nga def benn acte ñu ne la war a ko woon def yow la ñuy tudd yow la ñuy yóbbu yow la ñuy kii waaye nag xol-xol la et am na loo xam ne nekk il faut mu génn si je dis que je suis témoin dama xëy le matin c'était un vendredi mu tombé jour férié ma dem bureau pare jëli sama yaay yóbbu ko ci benn xaritam bu feebar fi ñu toog di waxtaan ma jékki-jékki ne ko mama man maa ngi dem mu ne ma doo toog ma ko dama am rendez-vous bi may ñëw ñi ngi pare euh, julli daanaka ci jumaa ji ma yegg si ba ci rond point boulangerie jaune bi ci BRT bi ma gis oto yi ma gis na force de l'ordre ñuy dugg ci BRT bi ci biir sama fit ne rëf ma ne lu xew ba bi may jàdd ci koñ bi maa ngi yëndu di xool naan est-ce que barricade waatuñu parce que nag barricade bi dafa am beneen boo xam ne dimension boo xam ne daf ñu fa yóbbu c'était très lourd. ñu ci dellu si waat continuer. bi ñu duggee bi may dugg. di gaare dama gaare jàkkaarlu usman ma gis ndaw si di wax ba jékki ni loxo bi. ndaw si yoroon portable. waaw ma gis ko mu wax ba ci loxo bi ma wàcc ci oto bi bi ma wàccee rek dama jubal ci Ousmane mu ne ma dellul dañ doon jéem a filmer mais c'est bon c'est mu amoon beneen waay bu nekk ci ginnaaw Ousmane bu soloon yëre bu rouge buggoon jot ci Ousmane pour jël téléphone bi. donc garde yi ko ko empêché ma mer man bi may wax xaw ma sax kan la waxal bi may wax xam naa ne daal le gars teint noir rek lu rouge la sol mané ko seen bi mané ko xanaa amoo leen ay frère xanaa amoo leen ay sœur pourquoi cet acharnement sur sur cette personne seen bi lan la leen Ousmane def seen bi yërëm len ñu. Ousmane di dugg ci biir kër gi ne ma ànd duggal ma ne ko Ousmane mënu ma dugg Ousmane damay wax ak ñoom garde yi ne ma duggal ma ne leen du ma dugg bi mu duggee ma ñëw fekk ko fii mu toog mi ngi toog ak ñaar ñetti xaritam ma ne ko Ousmane mu ne ma ma ne ko dama la yërëm parce que je ne comprends pas méchanceté bi nit ñi am ci yow pourquoi cet acharnement sur sur ta personne euh, mu ne ma waay yéegal ma daal di yéeg bi ma yéegee ma tëdd malam itu tëdd sax yéeg naa ci kaw bi yegge ci kaw yendu mujj bi gardi di ma xool ci kaw di reetaan pourquoi toujours mais agiré noonu euh Ousmane la personne bi nga xamne nek mom lañuy la ci mbedd bi ak la personne bi nga xamne mo nek ci biir kërëm du ben Ousmane du nitu fitna Ousmane du nitu coow Ousmane du xulo te defe naa nekk Xadi mën na ko témoigner ñun jigéen ñi dañuy xuloo rek Ousmane boy xuloo moom day génn wala mu noppi naan la waa baax na suñu ay doom seen la ñu gën a jege ñun ñooy yar Ousmane du yar donc du coup loolu yëpp dama xalaat pourquoi pourquoi ñuy def lii sur cette personne alors que cette personne ne mérite pas ça gëm naa yàlla de xam naa nekk ndogalu suñu borom dafa am te suñu borom bu lu bëggee il t'éprouve hmm. mais am na lenn loo xam ne dafa métti ma tëdd dina law bi ma tëddee euh, il était quinze heures yooyu noonu di seize heures sama jànk bi ñëw fëgg tata ñu ngi ñëw jël si ñu ngi ñëw jël si Mame Mbaye ma ne ban Mame Mbaye lu ma mbay def mu ne ma Mame la ñuy ñëw jël si ma ne ko lu lu xew quand il a dit xam naa nekk moom ko yëgul li xew mais man nekk Ousmane la ñuy gët sama xol fees torop ma wiiri dem taxaw ci balcon bi bi ma taxaw ci balcon bi di leen xool ñoom ñu ngi sone gendarmerie ñu ngi sone bëri woon nañ euh, ils étaient tous là ils étaient tous la bi may yëndu ñu ngi may gis donc ñoom ñu ngi koy waxante ci seen gis donc ñoom ñu ngi koy waxante ci seen biir mais man ki ma taxaw maa fa taxaw parce que amna fenn fo xam bo boo fa tollo ci injustice da ngay naan ne nañ ma naa naa dem rek ben yoon instant bi fouf la tolloon parce que j'étais à bout parce que mënuma won gëm comprendre injustice bi man injustice dama ko mës xex sama aduna ba à l'école on m'appelait l'avocate des élèves fat noonu Ousmane yek man na dem xolat sama néeg bi di xol ndax gendarme yaangi fa ma gis leen ñu yore seen euh, quand ils ont essayé la porte ils n'ont pas réussi ils ont sauté sauté. Ils ont ngi taxaw sama Ils ont sauté. jours sauté. ne lu sauté. damay ont sauté. est-ce que ont sauté. forcé sauté. Ils ont sauté. Ils ont dañu sauté. Ils

loolu moo tax sax ñun ñu yéex a génn di wax mais tey nag bu ñu demee ba wax dañu sës bi mu demee tribunal mook ñoom tonton ji bi moo fa nekkoon tonton ji bi mooy suñu kilifa comme toujours moom mooy dem moom mooy ñëw ba keroog ñuy yóbbu Ousmane Sibikotaan bi ñu yóbbee Ousmane Sibikotaan même chose ñun jot ñu ko fa dem seeti. dañ leen ko tere woon wala lu tax. Euh, dañu doon xaar déjà permis yi dañ doon xaar pour mu parce que nous dañu naroon dañu nekkoon permis spécial. Mm-hmm. parce que permis ñu c'était uniquement les mardis et les vendredis. donc nous, le temps que nous ñuy lijjanti loolu Ousmane def na malaise sibikotan ñu gàddu ko yóbbu ko principal le muy principal il a fait un ben, euh, malaise avec hypoglycémie à 0,58. 0,58 hypoglycémie pour xam nañ ko. Sucre, moo wàccoon. parce que boobu une grève de la faim. boobu une grève de la faim. waaw. hypo kon waaw. grève de la faim. us le ministre de la justice le président Ismaël Madior Fall mu musul grève de la faim comment se fait-il que musul grève de la faim l'hypoglycémie hypoglycémie bañ koy évacuer. Pape lu ñu mën a tontu ci loolu rek mooy Ousmane Gor la. bu nekk kàddoom la am. te du wax dara luy teggee ko. def naa nekk looloo koy lor sax ci lu bëri. Ousmane quand il te dit c'est bleu c'est bleu. quand il te dit c'est vert c'est vert. ñun de bi mu fa duggee ba tey ah defe naa du man du xadi de amul kenn koo xam. am na nekk jot na ko fee toggal amul kenn koo xam ne nekk jox jot na ko jox mu lekk. Mm-hmm. et tout le monde sait que du lekk fenn fu dul këram. Ousmane du lekk fenn fu këram Ousmane du dem restaurant Ousmane boo ko invité sax pour mu lekk problème la leer la fois où muy dem fenn di lekk kooku da ko ne rek woo sa jabar comme ça mu woote bu wootee ma ne ko ay tiwaa jox nañ la autorisation Ousmane lekkul. lekkul mm-hmm. euh, donc xëy na tey looloo indi tey fii ñu nekk nga xam ne nekk. Euh, mais soxna Anna dama bëgg nga wax sénégalais yi wax nañ ko yéen yéen a ngi koy gis fi nga xam ne moo di hôpital nan la mel comment il se porte parce que mi ngi ci vingt jours mi ngi ci réanimation dund naa grève de la faim xam naa conséquences yi xam naa métit bi nan la Ousmane mel fi mu nekk nii jamono yi la situation est critique quand je suis sortie là-bas le mardi, quand je l'ai vu, je dugg ci oto bi ma ne tonton Ousmane de mon fils qui a 10 ans 13 tout. Manika ne Yalla waaye Quand on nous donne c'est très difficile. c'est très difficile. et je reviens encore sur le mot gorla ». si gën a métti mooy nga nekk ci hôpital te nekkoo c'est très difficile. Madame ñun keroog bañ fa rek pour cette Ousmane on est resté pendant une heure de temps premier jour Mais ñu parce qu'il faut qu'on attende des instructions ak yooyu noonu donc. Euh, dégg naa léegi dafa am scanner rek lu ne pour nga gis Ousmane c'est difficile. Oui. deuxième fois bi bi ñu ñëwee nañ ñu ñu jall ñoo ñëw ñu ne waaw c'est bon pour vous ay ba ñëwé ñu contrôlé ñu contrôlé ñu ñu nangu bi ñu ñëwee à notre grande surprise euh néeg bañ ko dugaloon ñu génné ko ko dugal ko benen néeg hmm ni ko lu xew lu tax ñu changé la nekk mu ne non fii baax na ma ne ko waa mais fii la y avait beaucoup plus de commodité nan moo tax ñu indi la fii mu ne fii baax na bi ngay ñëw tu étais à 058 cinquante huit fan la sa suukar toll mu ne ma avant-hier j'étais à 046 quarante six c'était le mardi hypoglycémie mhm. sévère mu toogaat mu ne ma mais là mi ngi je suis à zéro cinquante sept ma ko d'accord c'est bon baax on est parti heure bu ñu fay génn nag on part avec le cœur très lourd très lourd ba tey lañ fa xëyaat dellu réanimation ñun ci réseaux sociaux yi lañ ko yëgee. waxuñu leen ko yéen famille. kenn waxuñu ko kenn waxuñu ko ci réseaux sociaux yi lañ ko yëgee.

boobu ñom dañ taxawoon ci tank yóbbu ko euh, réanimation génne ko pavillon bi mu nekkoon pavillon Teranga. Mhm. chaque minute ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di dem di ñew mujju bi mu ne leen sama bopp day metti may leen ma ba suba. demain le matin Inshallah, dina xey ma dem et je vais accepter les soins parce que dafa arrêté won soins yi carrément loolu ñu ne ko d'accord malheureusement à 12 heures du matin mu def malaise bi malaise à 2 heures du matin heure boobu lañ ko ko. réanimation yóbbu ko réanimation. ba nii may yow lal pour yóbbu woon ko réanimation foofu lañ ko donc euh, on a même pas les mots en fait cette affaire nous dépasse cette affaire, cette affaire nous dépasse. Et aujourd'hui. Sa vie est-elle en danger Parce que mangi ngi dégg ay insuffisance rénale ay yu est-ce que am un médecin pour vous waxtaan ak ci on a communiqué avec euh, le médecin, son médecin traitant, toujours docteur euh, Cissé. Mais de sommes euh, à l'hôpital médecin bi une réanimation dafa euh Ousmane il avait commencé à faire une insuffisance rénale donc les résultats yi été rein yi commencé à di corriger wu mais hypoglycémie bi moko sonal mais actuellement à l'heure que je vous parle il me dit que côté gauche il commence à ne plus le sentir Hmm. nee na ma sama côté gauche bi day mel ni amul benn mouvement du ko du ko yëg quand il ça dama ko ko ne bon mu juste pour ne pas wan ko que am nañ tiit mais si nañu et sa situation est alarmante sa situation est alarmante

Dikonyan Tamit pour tous les détenus. Aujourd'hui, on est à 1020 détenus. 1020 détenus. Cher Bara, nous sommes Ousmane. Annibal, hmm. Hannibal, nous sommes Ousmane. Même on est Jay. Même on a c'est une maman. Yay là. Et tout le monde sait que même elle est malade depuis des années. Donc, nous, nous, dimbali ñu nous, nous nous, Nous ñu dimbali ñu nous nous, et nous, je vais demander ça à la première dame je m'adresse à elle dama koy Je euh, ji Je Je ku une femme et actuellement les xale vivent dans les prisons maintenant. Les li vivent dans les prisons maintenant. et comme on dit il n'y a jamais eu de révolution sans évolution xale yi bëgguñu dara xale justice la un Sénégal meilleur Sénégal doit xam ne ci développement lay dem donc je demande à la première dame en tant que jigéen en tant que maman en tant que yai, en tant que mu yi ñu na xalé yi génn borom kër nekk foofu nañu génn seen njaboot nañu notre très chère maman ak ñeneen ak ñeneen donc ça c'est un appel de paix un appel de paix Sénégal dañu bëgg ci mi ak nekk parti boo mënti parti qu'on arrête la violence ak parti de mon type, bu amé sax nañu def des débats d'idées Qui sama leader li la def qui leader li la wax on veut retrouver le Sénégal devant. parce qu'actuellement, qu'on le dise ou pas les cœurs sont lourds qu'on le dise ou pas les gens sont tristes donc mais bëgg naa cinquante six jours leen barike soxna Xadi mooy wax wala yow wax cinquante six jours ana joxal ma soxna Xadi Pape Alé sa baat And a problem. Sure.

je me suis mariée en 2002 avec Ousmane je sais, je suis une famille qui ku fi dëkk rek xam une politique mais je je me suis jamais intéressée à cela Je suis ci urne voté en 2017 Ousmane a été déposé pour une député mosuma woon intéressé donc aussi même chose su ma ko ci doon génnee à chaque fois ni ko Ousmane di jaru dara jaru ko fi parce que bon gisoon naa Kébémer ak Ndande seen am tiraillement yi daan am donc dama ni dara jaru ko ci àdduna mais moo demee ba Ousmane impliqué wu ci bu baax a baax a baax laa gis loo xam ne mosuma ko gis sama àdduna mosuma ko gis si àdduna mais nag bon xay na mentalité yi changé mais tamit mentalité dina gën a changé waat tamit parce que nag li ñu teg ñu ko teg xam nañ xel ni ñoom àttanuñ ko mhm. mais dañuy ñaan yàlla nag yàlla yaatal suñu dënd bi nag ba li ñuy teg ñu mën koo muñ mais ku rek dañ la koo tegul dëgg la ci Anna Anna cinquante six jours yi alors moo ko dundee ak kii parce que mas nañ ci wax même benn jour dama ñëw fii di traumatisme rek la ñu am traumatisme euh, difficile ah mooy li Khady rek ma ne ko di baalu ak euh, sulu voisin yi ñu leen di baalu ak bu baax a baax a baax a baax parce que ñoom li ñuy barricade sax ñoom mënoon nañoo yem ci buntu kër gi rek. épargne waaw ma ne ko épargne épargne ñeneen ñi. Euh, li mu si gën a métti mooy wax rek xale yi la. Mhm. gis nga ñoom angle bi ñu taxawoon foofu foofu la xale yi di footballé chaque ngoon donc man waxuma suñu doom yi ñun kese de waaye xale yi ci koñ sax génnatuñu woon footballé. alors que tous les jours il faut faire entre 50, 8 ans 9 ans de 10 ans entre 50, 8 ans 9 ans de 10 ans faut faire de football entre nous. donc nous, nous nous nous ko c'est affaire là affaire nous mais c'était lourd day ne tout temps bu ma génnee damay euh, xuloo ak policiers yi bu ñuy génn ñu ñuy fuyee c' est tellement dur c' est tellement difficile. et eh, indécent aussi. Euh, parce que dama leen nekk li manque de respect mënu weesu lii ba dama ko wax benn agent ma ne ko bu keroog yow man xiyaame yàlla lañ daje àjjana ñuy xoolante mu ne amiin mu duggaat sama oto bi ma demee ba xam ne nekk il faut qu'on accepte que, parce qu'en fait, j'arrivais pas à accepter en fait le fait qu'on soit barricadé. Mm. J'arrivais pas à accepter le fait que les enfants, même pour partir à l'école, problème, le premier jour, ils ont école, ils ont l'école, bi ma demee ba xam ne ne que lii dama koy war a nangu dama ñëw benn jour gaare ñu ne ma ay parce que danga koy def à l'entrée et à la sortie

mais nous ci seen ils étaient gênés Nous ci seen ils étaient gênés parce que ils ont des sœurs. ont mhm. nañ yaay am ont ay jabar donc nous avons nañ ñun nous doon supporter. c'était très difficile très difficile moi honnêtement ça fait trois ou quatre mois que je ne nekk mënuma concentré wu liggéey carrément non mënatuma ko mënatuma pas. parce que je ne que... lii.

ba ci deux mille trois lan moo nekkoon force mentale am yéen la woon wala lan la parce que lu ñëpp ko mën a dégg loolu da ngeen ko dégg loolu da ngeen ko wax pour gën a ñaaree waxal nekkoon force muy Thione Seck bi ba muy woy sa femme Diaga mais booy woy nit da koy ne di woy sa yaay di woy sa baay waaye man moo wax jikko yi nekk ci yow moom a gënal boo xam ne jikkoom doo sonn moi personnellement bi affaire bi di am ma doon nelaw le lendemain may liggéeyi le lendemain may liggéeyi mu ma avant que ngay génn di gis dara ci journaux yi lii lañ ma waxal. ma ne ko lii lañ la waxal mu ne ma ma ko ñu ne yaa ko def ma ne waa <laughs> ko waay ma dem liggéey. pourquoi j'ai eu ce comportement parce que je connais Ousmane Ousmane n'est pas violent Ousmane du fekkee fu ñuy piqûre nit Ousmane du fekkee fu ñuy defalee soin nit Ousmane du que dara lu métti nit. دار لوكا فيكيه داره داره داره داره عمرو ما فيكيه وصلنا يرمان اللي بيمو امسي جيجين وصلنا بروح يا صافي على بريسيون كل فلاراغال الوغ كو نو دونك سي بيرسون من يوم يعرف لي ولا يوم يعرف لي نوبي نوبي نوبي جميع سما بين خارج من ما انا اللي نجني عثمان نهبق له ma ni ko bu ñu ne yaa sàcc ay million ndax dinaa ko gëm mu ne ma déedéet ma ko kon nag jàppal c'est la même chose ak Ousmane. Hmm. et quand il est venu je lui ai ma ni ko Ousmane mu ne ma ah ma ni ko soxla ma sax mu expliquer ma ni ko je n'ai pas besoin d'explication. Hmm. j'ai posé deux questions à Ousmane. xam nga ko déedéet.

ma commencé jooy moom moo ñëw na ma déet taxawaatal ma nee naa ñu lu ñu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër c'est parce qu'on la elle mm-hmm. man des fois émission yi jàpp ma mm-hmm. normal c'est humain ma réagir comme xale yuuxu tëb dal elle, est toujours posée. C'est normal. Mm-hmm. Mais pas lui, de 2021 2023, il y a le bouquin de Il y a le bouquin de Mais Les vous voyez, Ousmane, un homme violent,

ñu mhm. naan Ousmane la par rapport ak Ousmane bi nekk ans de mariage Ousmane musul rendi xar bu tabaskeem. musul rendi xar tabaskeem. je euh, sama deuxième gosse bi mu juddoo kër gi ñu dëkkoon bi si topp terrain vide la woon. Mhm. ñu toog ba ay daw si dugg fekk tëju ma sama bunt ne dafa génn ndànk néeg bi ñu leen du ma rey di ko reetaane mënu mhm. gis deret mënu ko koo xamante ni nii xamul def lu bon franchement xamul xamalu xamaluma ko te jëfewu ko wanewu ko aussi mhm. Ousmane nit ku duus la Ousmane boo xam moom boo sa baat sax nga gis mu noppi pare ci entre copain bi nag ku ko ku ko fekk ak ay copain nag da nga naan kii ak Ousmane bi nekk toog ci meeting bi wala kuy toog di def live bokul day toog mbalak ma ji gàllankoor aussi dañ ko teg yëpp. la foofu laa jëm ok foofu boo ko fekkee ay copain day toog kafre def yooyu zëmbale def ay affaire am mais nag nit nit la paap. nit ki di nga ko sës koo xamante ni force mu génnee jikkoom te même bu nekk woon jikkoom il faut mu aabi jikko aussi tamit nag. Ousmane dañ ko sës ci miir bi dafa sës mais nag kenn déggu ko mu jooy musuma dégg Ousmane fu mu insulté mhm. ba doomam mi mu jur musu cee yëkkati baat wax la wax bu ñaaw ñun kay ñun jigéen ci ñun doon ne ci kër gi di wax xale yi di yuuxu ak di goronte affaire yooyu muy jamais xale ku ci def bêtise da lay woo ba muy soxtaan ak yow nit ku dal yéen lu lu lu mu am nag ñoo yaa ko ci loxoom muy ku mu bokkal ak ku mu bokkal lu am joxe ko en 2005 un jour dañoo toog di waxtaan ñu seen fonk commun yi affaire yi demee noonu man ko Ousmane man da maa jaaxal bu mel ni yow te amoo compte bancaire ci yow laa ko gis en sa épargne mu ree dama am lépp lu ma suñu samay mbokk ak samay am di jàmm yàlla bu ma may fonds commun bu ko jotaan mu ci man la koy jox maa koy dencal chaque jour mu ñëw yëkkati jël dem dem dem dem kon kooku tey jii mën toogee naan dafa violent dafa violent daf ma yéem daal gis dara lu naqari nit nag gis dara dara dara lu naqari nit foo xamante ni fitna am na fi sax da ngay gis mu ñëw nee naa ko sapeur pompier nga xamul condition yi ko teg. le moo tax. aussi il était obligé de se défendre. déggoo parce que nit ki statut chaque jour chaque jour injustice ci kaw injustice privé sa lépp nag amatoo droit ci dëkk bi dafa metti dafa metti avant may jàll aussi il faut ma remercier suñu voisins yi ñu dëkkal ci cité kër bi gis nga boo doxee ba kenn ni ko ah soxna si wala monsieur baal leen ñu àq de gis nga de bi ñëpp fitna bi mbi ñu teg ñun la maram ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que xam nañ cause bi tax si ñu def ñu ko te cause boobu ñu ñëpp ci ànd kon loolu ak ni ñuy la ci waa cité Kër Góor gi dëkkandoo yu mel nii jar naa daw fu ne ñëw am dëkkandoo yu mel nii kenn seen fay. Mhm. kenn amul seen fay boole seen nag di lay bu dégg ba ceeb madame jàppale leen seen jëkkër leen seen jëkkër. kon nit ñu baax ni mën ne bu doon bu doon mën nañoo génn tey de sitting ñu non en ana marre la Sonko wala mu dem te boobaa boos ñëpp dañuy comprendre aussi ñoom it la sonnul am ñëpp a sonn mais violence bi ku ko jegewul rek moo koy wax. est-ce que viol nekkul de l'autre côté defe naa. violence vraiment de l'autre côté. parce que bëgg démb dama gis sama doom bi statut bind ni dëkk bi comme lii dox après ma woo ko ma tawaat lan nga ñu nañ ko. kooku laajte ñu ne jàpp nañ ko kon ñu dox mu ne ma dëkk boo laajte ñu ne jàpp nañ ko gis que dem nañ ba nit ñi kon loolu def na defe nañ ni kon wala devoir la boo xamante ni koo xamante ni yow bokk nga wala jege nga Ousmane Sonko dañ la war a jàpp